gàllankoor ci walu ligue ak ci wàllu wérgu yaram l'islam amna safara ci si li motax sen radio RMD radio municipale de Dakar 95.5 FM andi len à bu jot 10 h si guddi jàpp minuit une émission Wadduha et l'âge Modou Cissé mo len koy andil ñu gën ko xam ci Mara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 الرحمن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

yaa ma leen gënal yaa ma leen manaloo muhammadu rasulullahi su la yàlla mayee baat bu neex nga mën a way te wayoo yoneen dee nga ka ngay way dee na sa way wa niil na gëjoon naa di taalif ngir ñii di sàcc taalif te seeni baa ahasbillahi min aseytaani rajim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 بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع حليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نيانون نان بروم بي توغي yéen seen ايميسيون Wadduha borom bi may nu ko tey di àllarba di mercredi di 8 rabihul awal 1437 waaye di 7 décembre 2016 noonu la nu koy ñaanee tàmbaleeg bismillahi rahmaani rahim yàlla kàttanal nu ban àggaleek alhamdulilahi rabbil alamin ñaan yàlla comme nanu ko daan ñaanee asakaay wax yàlla bu mu bàyyi ko si émission bii di Wadduha di sant yàlla bu baax nag ndax eh, jotaay gojon nay am waaye lépp fa tabarak laa doonoon ngànt yoo xam ne ngantu jàmm la sant yàlla bi nu toogaatee tey war a def ak yéen émission direct tey di dimanche 17 décembre 17 décembre 2016 nu nekk ci weer wu màgg nag ndax lu ko tax a màgg mooy خير الخلق سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam weer bii la gane woon àddina muy sabab loolu doon sababu nu war fee wettili konte ak kilifa doon koo xam ne kilifa la si ñun doon koo xam ne wëllëre la doon koo xam ne xarit la muy imaam Mohamed Niang nu fas yéene wettili konte ak moom ndax fa tabarakallah sunu tuddee gàmmu xel yépp day dem ci sallallahu alayhi wa sallam su ko defee mu fàttali nu lennat ci axlaaqu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne innama bu'istu li utammima makarimal axlaaq makarimal axlaaq nga xam ne fi tabarakallah mel na ni luy xaw di tumuranke mu gën ñuy soññ gën ñuy dénk yoon ba nga xam ne bu nu fa jaaree fa tabarakallah sunu borom dana nu defal makarimal axlaaq kaxaadati yi nan ko daan defee toujours rek dana ñaan fépp foo xam ne sunu kàddu àgg na fa nu jàng fatiha jàng la jàppande si xul wallahu ahad gannaaw ba nu ko defee xaddiya si sallallahu alayhi wa sallama moo doon xaddiyaay bépp néewu jullit boo xam ne ma nga barsaq ñaan yàlla beesal yërmande si ñoom yàlla bee seen njëggal sa ñoom yàlla leeral seen gannaaw di fàttali ko bu baax sunu wëllëre alxaaji Alioune Jonn yann yàlla beesal yërmande sa moom ci barke weer bu màgg bi di rabixul awal di nuyu tey siyaara kilifa diine yi di leen ndokkeel bu baax ci weer bu màgg bi nu nekk di weeru gàmmu nanu aada di koy wax rek di ñaan yàlla yàlla yokk guddal seni fan lool waaye di yàgg yàlla wéral seeni cër fa tabaarakallah nu ngi nu ngi siyaar bu baax njabootu maam Seydi Alxaaji malik si di nuyu xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum ak ay rakam di leen siyaara si saxru rabiul awal ndax fa tabaarakallah imam gàmmu at yëpp la koy màggalee waaye yàlla cëral na si lu bari Cheikh Seydi Alxaaji Malick Sy di nuy kilifa dina yëpp di leen siyaara fa tabarakalaa di sàkku seeni ñaan di seet way tawat yëpp comme nan ko daan defee di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy saafi yàlla saafara tawat yëpp fa tabarakalaa ñi nga xam ne nattu dale na dàpp nu nekk ci prison it yàlla bettee leen ak ixlaas way tukki it fa tabarakallah nuy ñaan yàlla sàmm leen kër ñaan yàlla tamit sàmm leen àll fa tabarakallah di ñaan yàlla li ñuy wax salaam te muy jàmm yàlla yokk ko lool ci sunu réew bii di Sénégal ak ci réewu jullit yépp ñaan yàlla yokk fi sutura fa tabarakallah nanu ko daan ñaane ñaan yàlla yombalal ñëpp te dëkk bëgg sangu fa barak la di nuyu njabootu Wadduha xaa yëpp gannaaw ba nu nuyoo kër gi di rajo municipal de Dakar 95 point di nuyu kilifa yi fa tabarak laa di ñaan yàlla yokk ci kër gi xéwal yokk ñi fi yëngatoo ñëpp fa tabarak laa di nuyu bu baax Malick Sidibé fi nga xam ne moom la ñu jàkkaar loolu àllarba bu nekk fa tabaarakallaa di koy ndokkeel si Pastef ak itte bi mi am si nga xam ne bu émission amul it ñu bëri duñu koy sentir ndax Pastef fam foto tabaarakallaa nu ngi ko si ndokkeel di koy ñaanal yàlla may ko barke doxa tey fa tabaarakallaa dañ fi wettali konteeg imaam Mohamed Niang bu Caaroy waaye di fi mu nuy gunge tamit malik sok nga xam ne la sunu jarbaat la di nuy jàppale si liggéey bi noonu la ñuy nuyoo kër ga di si jiital Babacar Cissé sëñ Omar Diallo di leen nuyu bu baax di leen siyaara di nuyu tamit eh, sunu waajur yi nekk point di leen siyaara si gamogi gi muy alxaaji Alfuseyni Sagna ak fatun Fatou ndjay di nuyu bu baax tey siyaare sunu jigéen di aja Aram ndjay bu Tëngéej nga xamne mo nu nekkal ak sunu goro mohammed Diop ñu ngi leen nuyu di leen siyaara di leen ndokkel di leen ñaanal di nuyu bu baax sunu jigéen soxna jaaram Mbooj nga xamne mo nu nekkal Kër Massar fa la di koy ndokkel ci gamu gi waaye di koy ndokkel ci màggal gi nga xam ne la nu bàyyi ko sunu jigéen soxna Kumba Ka nga xam ne nu nekkal Mbuur moom it nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal fa la di nuyu tamit Mouhamadou Lamine Muntaxa nga xam ne si sunu njaboot la bokk Mouhamad Lamine Muntaxa ba nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ndokkeel si weeru gàmm gi di nuyu bu baax tey siyaara sunu mag di wëllëre di xarit di alxaaji xaadim rasul Guèye fa tabarakallah borom wadduha point org nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal sunu rakk di Cheikh Ahmed Tidiane Sy Gajaga moom it fa tabaarakallaa di sunu rakk nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal si weeru gàmm gi fa tabaarakallaa sëñ Baara Diouf moom nga xam ne moo nuy gunge di sunu sénérique moom it nu ngi koy ñaanal si xasida ba am solo boobu Muhammad Rasulullah yàlla yokk ko barke yàlla yokk koy xéwal niki noonu alxaaji Fàllu Cissé nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara seen Riñ Kulibali Dudu moom it nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di siyaara fépp foo xam ne sappe wëllëre xarit ma nga fa fa tabarakalaa di topp Wadduha nu ngi leen di nuyu fépp fu si waay nekk di leen siyaara di leen ñaanal fàtte wuñu waa association Wadduha xam naa dinaa wax imaam mu yokkale ñaan e, si seen e, association boobu nga xam ne sappe yi wëllëre yi noo ko taxawal lépp yi ñu jublu si solidarité seen biir ak dox ak mbokk fa tabarakalaa nu ngi nuyu bépp membre boo xam ne mu ngi si du nuyu bu baax sëriñ Mboup mi nga xam ne yàlla dafa def mu ubbi studio tuddee ko studio Wadduha moom it ñu ngi koy nuyu di koy siyaara di ñaan yàlla may ko barke doxaa xam naa si gàttal nuyoo yi dañ koy tënk ni foofu ndax eh, bàyyi kilifa gi mu nuyoo si nuyoo ba pare nu door a dugg si seen émission bu nuyo mu jox malik Sock mu nuyo nu door a dugg si biir émission bi yëgal mbokk ñi ni doog a dab ñëpp ne tey am nañ seen émission direct si kàttanu yàlla suñu demee ba 23 seet ak ay minute danañ mën a wettali compte ak ñun si émission bi kon imaam bismillah الحمد لله الذي علمنا ما به كلفنا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين نجلين دي نيو ngi leen di جناو بنيو بالواق ziyaara itam ginnaaw ba ñu weer wu màgg wii di weeru yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu kilifa yi nga xam ne itam ñoo ŋànk isaa bi muy rajo bi mm-hmm. commencé ko ca ka gën a kawe ba ci ki gën a suufee donte amul wallaay mm-hmm. wallaay ñoo subhaanahu wa يلا يلا دفل لين توفيق امين امين دفل لين نجاح دفل لين سلام امين امين تي بركي كيغا خامني امونو كودول موم موي يونت يلا محمد صلى الله عليه وسلم ا Hadj ñu لي نوي بو باخ baax yow. wallaahi maa فاي تبارك الله tabaarakallaahu di la <laughs> gëj a gise gi ñu gëj a gise wallaahi wallaahi imaam waaye xat-xati jamono ku ne xam na ni mu tëddee wallaahi wallaahi ak it tabaarakallaahu yitte yi di am dégte lool nag si bokk yow <laughs> ñu ngi nuyu itam suñu mbokku sëriñ soog mi toog ci suñu mm-hmm, wet mm-hmm, mm-hmm. di ko ziyaara bu baax a baax di ziyaara mbokk ñu ngi ko waxee muy Cheikh Ahmad Tidiane nuyu di nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu Wadduha والله والله جي بارك يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيغاكو واخي وون ليغي تام دي نيو كليفه ديني والله والله موي مبولم kilifa goo xam ne yaa ngi ci kanam mbooloo yi. wallaahi wallaahi. <clears throat> ñu ngi lay tàllal suñu ñaari loxo di la ziyaara. Mm-hmm, mm-hmm. di la balu ak waaye di leen ndokkeel ci weeru màgg wi. Mm-hmm, mboolem kuy borom xam-xam nga xam ne jotaay yonent bi lañ toogee. wallaahi wallaahi wallaahi. ndax al ulamaa warasatul anbiya. wallaahi imaam. loolu nag ñu mel noonu soo ko amee ci réew. booy tàmbali da ngay tàmbalee ci ñoom. mooy booy jeexalit nga jeexalee ci ñoom dëgg la kon yàlla na yàlla dëgëral seen i taxawaay. amiin imaam ci gox yi fasantikoo yi ñu mën a nekk. Mm-hmm, mm-hmm. ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla. Mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. amiin amiin imaam ci réew jullit yëpp. ci barke yonent bi sallallahu alayhi kon sëriñ bi ñu delloo kàddu gi ba ci kanam. incha allah am na solo am na solo jërëjëf barakalaa fiik eh, imaamul akbar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 yàlla na ko yàlla boole amiin yàlla na ko saa waroon defal. amiin ci barkatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin amiin. di siyaara sunu imaam bii taw. Mm-hmm. di ko baax. Mm-hmm. di ko ñaanal moom itam suñu borom dafa tawféex. wallaay wallaay ak barkatu ci barke Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. siyaare waa daara ji bu baax. ak borom daara ji ak waa daara ji. Mm-hmm. ñoo leen nuyu bu baax te di leen siyaare bu baax a baax. Mm-hmm. ci weeru tëdd yu ñu nekk. Mm-hmm. ñoo ngi siyaare Serigne Omar Diallo. di suñu wëllëre. di suñu naataangoo. bokk na ci daara ja. ñoo ngi koy nuyu di ko siyaara. ñoo ngi siyaare Serigne Babacar Cissé. di suñu kilifa. di ko ñaanal ci barke alxuraan. suñu borom dafa ko tawféex. di siyaare bu baax suñu bàjjan. mën a ci kar gi di ñu toppatoo. wallaay wallaay. di ko baax. wallaay wallaay di muy soxna ci ñun. mu ngi ko ñaan tawféex. di siyaare sëriñ Xaadim Rasuul Njaay mm-hmm. di sunu saxoo bu baax. Mm-hmm. moom di sunu xarit di sunu soppee. nu ngi ko ñaan bu baax a baax a baax. waaw sëñ Xaadim Njaay mm-hmm, mm-hmm. di ko baax. di saare soxna Saarata. Mm-hmm. wax dëgg yàlla moom ku baax la. yaayu Mouhamed. yaayu Mouhamed nga xam ne mooy nekkal géejawaay. di ko baax lool di ko laay biir lool. di suñu xarit di suñu soppe. di saare soxna maam Jaara Mbóoj. nekkal Masaar nekkal ñu fa. moom it nu ngi ko bu baax a baax di ko saara. di ko ñaanal jàmm ak xéwal. ak soxna Njaay mi nga xam ne. ku baax la. moo ñu nekkal tëngeej. di ko ñaanal bu baax a baax a baax di siyaare bu baax soppee Wadduha yëpp di siyaare bu baax Cheikh Ahmed Tidiane Gadiaga di suñu xarit moom itam ñu koy nuyu bu baax di ko siyaara di mbooleem ak foo mën nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen nuyu bu baax di siyaara kon sëñ Mara ngeen la rafet na fi tabarakallah yal yàlla nangu tabarakeel malik Sock mm-hmm. eh, fi tabarakallah eh, imam mm-hmm. eh, fi tabarakallah mm-hmm. bu nu toogeek imaam toogeek moom ci jamono ji nga xam ne kuy topp te xam ne Sénégal yi li ñuy dégg ci ñoom dég-dég yi ni am si jamono. wute na lool ak la nu xamee woon sénégalais e, nuy laaj sabab bi. ndax e, xo leeru diine nekkatul si xol yi. wala lan mooy sabab walla seytaane man doomu aadama yi ba nga xam ne léegi sénégalais. doo xëy mukk ba jant sotta dégg looloo xam ne kawteef lay doon. xam naa. yi fi jotta am nama ko waxe won keroog rek bima duggé né eh, don na ni dégg nu naan am na dëkk sàngam na nga fay faat ñi nga xam ne seen xel dafa dem mm-hmm. nu baal ma si kàddu gi nu leen tuddee dof mm-hmm. nu ne ña koy def kat àddina lu nu sëy ut mm-hmm. nuy dem ba mu yàgg di dégg ne nu ngi sulli ña nga xam ne bii borom da leen fee jëlee nu nekk barsàq te ña koy def lan utul si lenn lu dul àddina nuy mhm. dem ba naan nit bëgg teraanga mhm. ak yàkkamti ak ut sàkk lu lewul dundee lu lewul mhm. dem na ba muy rey mbaam àll di koy dugal si marché di koy jaay ay doomu aadama nu dema dem ba léegi tuur deret eh, imaam xaw a bëri lool mu mel ni doo dégg semaine bu nekk du ñàkk nga dégg ñaar wala ñett ñoo xam ne bi ah. tuur nañ seen deret ah. fa tabarakallah nu dégg mel bés boo xam ne ah. nee naa foo ne Seydina Muhammad ñëpp ne sallallahu alayhi sopp na bi nga koy dégg fu bëri bëri eh, nu lan nga mën a ñaaxe doomu aadama yi si lenn si jikkoy sallallahu alayhi wa sallam boo xol yi gën a mën a defaru yaa imaam jërëjëf euh, sëñ El Hadji Cissé mhm. ñu ngi lay dellu rek mhm. di la gërëm ci euh, yaatal gi nga def mhm. ndax li ñuy waxloo euh, ku ko mën a wax nga waaye joxe cër day tax nit am cër mm-hmm. beneen bi ci des mm-hmm. mooy teralaat day tax nga tedd mm-hmm. mu mel ni kon ñu ngi lay sant ci loolu bu baax li nga wax lu am solo la El ñu ngi jëm ci guddi nekk ci weer woo xam ne Sénégalais yi wala monde entier su leen neexee ci la àdduna bi di defaru wallaahi wallaahi wallaahi su neexee jullit ñi ci weer wi ci la àdduna di defaru mais suñu sàgganee ba rate occasion bi tamit dana jur yàq-yàq boo xam ne dabaatal ko dootul dootul yomb li tax ma wax ko mooy tudd nga ko léegi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yàlla dafa wax ne laqad kaana lakum fi rasulullahi uswatun xasana mm-hmm. mm-hmm. mais ci ñan da ngay question bi mooy ci ñan wallaay wallaay liman kaana yarjullah wal yawmil axir wallaay ak am solo ak am solo kon dañ dafa am ñuñ setti mm-hmm, yonenti boobu sallallahu alayhi wa nga xam ne li yàlla am lépp mën nga ne jox na ko ko moom yàlla jël ko jagleel ñu ko انك وما ارسلناك الى رحمه للعالمين والله والله والله ورحمه بوبو انا مو pourtant دوتي نكو مي ندخ موم لا ديديت موم سوتي نكو مي ني كوي ديكندو ني كو وري جيرنيو يالا واخون نكو تي بن اي نكو دوما مبوغل جوليت ني موك فيك يانغ سي سين والله والله والله واي دوما لين بوغل موك فيك يانغ لين جيغلو mais loolu itam garantie yooyu te wax naa ne alquran dafa am garantie yu ci yàlla def mooy inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafizoon yàlla def ne man maa ko wàcc mais dama ko protéger dama ko sécuriser ba du yàqu kon li ngeen ci gis loolu la kenn kooju ko kenn yokk ko du lu ñuy kooj mbaa lu ñuy yokk mais kon li xew mooy. ñun jullit ñi lañ laaj suñu bopp ñun ñooy kan. ñun ñooy kan ci kanam yàlla. mais ñun ñooy kan ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. parce que bu fekkee royukaay la ñuy wax. royukaay bi gën ñoo ko am. ci ci ci njubam. ci dëggoom. ci taaram. ci doxalinam ci dëkkandoom ci waxam ba yàlla ne ko loo wax maa ko wax wama yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa waa léegi nag suñu tënkee ku mel noonu ñu ne moom lañ am ba pare ñu baal ma ci baat bi ñu ne nag ñi gën a yées ci ñun la ne kon lu xew wallahi wallahi ku ne da ngay laaj sa bopp lu xew jar na laaj lu xew lu xew ñu lu xew ñu am alquran am yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw yonent bi sax ñu am ay nit ñoo xam ne li ma waxoon léegi warasatul anbiya wallaahi wallaahi mais lu xew lu xew ñu gën a bëgg a yées wallaahi wallaahi wallaahi lu xew ñu ci ñun la borom xol yi bon yi ne mhm, mhm. ci ñun la ñi kiñaan ne mhm. ci ñun la ñu jubadi ne ci ñun la tooñkat yi ne ci ñun la njaalookat yi ne waa lu xew kon élage ñun jullit ñi Mm-hmm. ñoo war a jël suñu baaraam teg ko ci suñu dënn. joxoñ suñu bopp. wallaahi wallaahi wallaahi. Mm-hmm. xam ne nag. Mm-hmm. li xew. ñoo ko teg suñu bopp. rawatina nag ñun ñi dëkkee ci réew mi. wax nga léegi benn baat. soppee na bi. nangam na bi. nangam na bi. na bi ci lan. sopp yonent bi mooy roy ko. sopp yonent bi. mooy di ko déglu di ko roy. ci jikkoom ya ci njub ga. que njubam njubam googu nga xam ne yàlla daf ko dëxëñ ci faatixatul kitaab bu yàlla di wax ihdina siraatal mustaqim mais yonent bi mooy siraatal mustaqim bu dee ñun ci tarixa bi ñu bokk muy salaatul faatee haadi ila siraatal mustaqim mais yonent bi la mu ngi jolli fu ne mais tey ngay gën a jaxle ci nit ñi tey ngay gën a jaaxle ci jullit ñi. kon loolu sëriñ bi. li ma bëgg a wax mooy ñun. jullit ñi nañ seetaat suñu bopp. kenn ku ne xeet xool fa nga tegoon sa tànk. su dul foofa nga delluwaat ko fa nga ko war a teg. la suñu góor ga daan wax sëriñ Cheikh. ku ne dugg ci ruq mën a kan. wallaahi wallaahi am na solo. <laughs> kenn ku ne. da nga dugg ci sa ruq. laaj sa bopp yow yaay kan. xam nga yonent bi daf ñu jàngal benn xadis. xaasabu anfusakum qabla an tuxaasabu. ak am solo. mais loolu. buñ ko deful itam ñun ci société bi ñuy nekk. ñu ngi audité ñoo xam ne dafa am lu tax ñu leen di audité. mais bala ñu leen a audité. dañu fekkoon ñu waroon a audité seen bopp. ñun bala ñoo teer ci kanam yàlla subhaanahu wa taala. war nañu seet suñu bopp lu ñuy yóbbu. ci suñuy jëf. ci suñuy jëflante ci suñuy wax. mais sëriñ bi soo xoolee dëkk bi li ci xew. da laaj ndax nit ñi li ñuy def ñoo ko tey. mu ñu mel ni ñu ñu xabtal ci ñaawteef wallaay wallaay wallaay su fekkoon sax ci njub la du la jaaxal mais dañ leen xaptal ci ñaaw ñaawteef sama benn xarit dafa daan wax ne muy Oustaz Assane Seck bi nekk Zik FM mhm. da wax naan Sénégal yi seen direct tàngul mais day tàng ñoo koy tàng koy ñoo koy tàngal mhm. kon di tàngal sa yaram amul solo wallaahi wallaahi wallaahi na nga bàyyi ni tabia bi la yàlla bindee rek mhm. mooy yàlla bindul nit pour muy yàq yàlla bindul nit mm-hmm. pour muy tooñ mm-hmm. yonent bi salaa dafa yàlla daf ko wax ci xadiisul si ne ko mm-hmm. man dama dama araamal tooñ ci sama bopp moo tax ma araamal ko ci seen diggante te boo seetee Serigne Cissé li ëpp li am boo ko delloo ci baat bi ci ñaar yi la toon la la delloo benn bi mooy baat bi ñoo tuddee tooñ ci wolof ak baat bi ñoo tuddee mer benn góor dafa ñëw ci yonent bi salaa ne ko digal ma يونت بنك لا تغضب والله والله والله والله مو بام توات كو منكو لا تغضب بول مير باسكو يسوس يوب فوفا لا سوسو كون نيار ني بون لين فاجي بون فاجي ني توغ بون باي توغ فاج ني مير با ني وير سوسيتي بي باخ يالا نكو يالا ديفال امين بارك بارك الله بارك الله امام يوبال بي بو امنا سولو يالنا توب تابسي نوب سامحنا واتحنا comme noonu nga ko waxe rek si ne am roy way fa tabarakallah yal nañu yàlla gëna xir su lu baax. yàlla gëna a fóot xol yi. nan koy waxe rek ne baraana luy am. xol bu amul leer la bu sarsi wul dara su leer. waaye fa tabarakallah ki nga xam ne dina tudd yàlla. di koy fàttaliku te tàmbalee si motal waxtu yu juróom nga xam ne. feeg yaa ngi koy respecté yàlla dana lay tënkal seytaane ba du lay not mhm. eh, teg sa yit fa tabarakalaa di saxook laab toujours muy laabu yaram ak laabu xol mhm. ndax xol su dee laab yu si bëree bëree bëri seytaane du fa mën a placé wu ba mën fay def naka su noona mhm. eh, moom su fa lenn leer nekkee rek fa tabarakalaa seytaane da koy sore waaye lu tuuti la sa seytaane yi am bu boroom amul ak Pastef day mel nii e, lu weex loo yor gàkkal sa tuuti lu ñuul <laughs> lu lu ñuul day gën a yokku day mujj dem ba day muur lépp mooy tax dangay ngay mujj nit wax yas wi la day mujj àgg foo xam ne mm-hmm. nan koy waxe rek daanaka jëmmu jaa fa nekk waaye la ñuy wax nite mm-hmm. la wax nit nekkatu fa mm-hmm. te nite fu mu nekkul rekk jomb du fa am kerse du femme mm-hmm. te ñaar yooyu jikk yu ama ama am solo la mooy kerse kerse ak jomb mm-hmm. eh, nee naa suñu demee ba bu nu xëyee ku si nekk di dàkk rajo mm-hmm. boo xam ne day waxi kawteef tey nga naan bii neexul. Mhm. moo xam nga naan tës tey neexul. Mhm. wala beneen xalaas wala moo xam. tey yooyu mu war na am ay weer. Mhm. du du si am benn lan si dégg. léegi muy dem ba benn bés bu nekk. da si dégg yu bëree bëri bëri fa tabarakallah imaam su jikko yàqoo ba macha allah ba soxna. di di di sàcc nit. pour pour di koy sàkku. loolu wax yaasu billah te yooyu yëpp yaa ngi koy dégg ak hmm. yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bii. wallaahi du lu nu donnu. Hmm. te il fa tabarak la eh, ni ko waxee maam. Hmm. du fu nu waroon a toll yit eh, mu war nuy gën a xirtal. si kon mm, génération future. te mooy sunuy njaboot. ba nga xam ne yàqu-yàqu yi xew yàlla dana leen si gën a dimbale. Mhm, mhm. soo demee si internet bi léegi fa tabarak laa la sa nekk si sullante mbóot. si xasante bi. si mhm. fa tabarak laa yoo xam ne bii lépp su jikko yi defar woon rek lu mën a ñàkk la. Eh, loolu imaam lan nga si yokk laxay biir mbokk yi. di wax ne sunu demee ba si kanam danañ mën a wettali contact ñun. mo xam lu nu bëgg imam mulaaxe birante si ak mbokk yi si 33 821 14 85 bismillah jërëjëf Cissé mhm. ñu ngi delu rek di ñaax suñu bopp mhm. di ñaax ñi ñi bokkal yàlla mhm. di delu suñu bop ci alquran mu melni ni Cissé yàlla daf ñu wax ben aya ci alquran waaye ñi ëpp ci nuñ mën nañ koo jàngam mais alxuraan mhm. li ci gën a am solo mooy lettre bu yàlla bind la jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm, mhm, def ca yem ca def yëpp waaye la ko ci gën a yitteel mooy dafa am lu mu wax ni yonent bi mooy day leen def li ñoo tuddee tadabbur wallaahi wallaahi wallaahi di creuser alxuraan di ko gëstu di xam biir bi ngir ngeen mën ko dunde أه، أكم سلام يلا وقت القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا أكم سلام <laughs> ويرزق من حيث لا يحتسب والله إن سلام سلام ويليك <laughs> سيطل من فين تول خمغة جامبة دي نتني جامبة جافي جفة جفة نتني أم تشاول إيه. نتني أم تواد نتني أم إيه. حتى تواد من تبير إيه. سوخلي من تفاجو لو خيو دنج في بيال والله لو وير وير لو وير لو وير wallaahi te ku fi bàyyi yàlla. Mm-hmm. yàlla la ma waxoon ci alxuraan maishata dankan. Mm-hmm, mm-hmm. nee na ma kërëjal sa dund. wallaahi wallaahi wallaahi. su ko defee loolu. mooy li ñu war a def nag mooy delluwaat ci bële. ñuy jàng. nañ delluwaat ci ittaqullah. ndax ittaqullah yuallimukumullah. wallaahi wallaahi wallaahi. kiy jàng bëgg am xam-xam. li koy may xam-xam. mooy mu njàng ma ànd ak ragal yàlla. kii liggéey bëgg am. barke té li muy liggéey la ko cey may ndam moy mu dellu ci ragal yàlla wallahi motax tax alquran wa man yattaqilla yaj'aluhu makhraja wallahi wallahi wallahi parce que jafe-jafe solution bi ci alquran la nek solution bi ci yonent bi rek ben mbok ma sunna ma laaj dama bëgg dama dafa am luma bëgg mané ko def ko 1001 mané ma wallahi yanuna ma na wa man yattaqilla yaj'aluhu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasibu du deug wallahi wallahi ndaysan ay bu rëy defee nit ñi war nañu bàyyi xel ci loolu parce que yonent bi ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam li tax yàlla jox ñu ko dafa war nañ ko xutwatuna fi kulli ma yaquluun wa ma yafaluun ci lépp nag war ñoo roy yonent wax ne dañuy roy yonent bi parce que dañ ko sopp déedéet mais suñ jëf li ñuy pratiquer li ñuy wax. li ñuy jëflante. fi ñuy dem. doxine wi. dafa wara nek doxine doxinu yonent bi. wallaahi xam nga Serigne Cheikh dafa wax ben wax. daf ne kunu rijaalullahi misla muhammadin. sallallahu alayhi wa sallam maanaam yonent bi doxinam. doxé len ni mi doxé tek len tànkam fam ko tégon wayé nak mom yaatu ba. mo len koy gëna yaatu leen. wallahi wallahi guddu ba mo na leen koy gëna guddu gudd mais li am solo moy tek len ko kuko fa tek top nga ko. te topp yonent bi nag. Mhm. mooy jaamu yàlla sëriñ bi. wallaahi moo tax. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa mos nañ ko laaj. Mhm. mu ne mu ne sama xeet ñëpp. aljana lañ dugg. ba mu des ñi bañ. ñu ne ko déet sallallahu alayhi wa sallam ñan ñooy ñi bañ. mu ne ñi bañ daal mooy ñi nga xam ne nii. ñi ma topp daal mooy ñi nangu mais ñi bañ mooy ñi ma mooy. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قالوا من دع على الجنة ومن حساني فقد أبى كن لولو foog ñu bàyyi ci xel ضي ينتي بذاك لا صلى الله عليه وسلم دوما كو صوبك دوما غود بوب دوما غود سيكيمك دوما سانت ديوك دوما ما بوك في بوك لول امول لي ام موي ضي ينتي بي صلى الله عليه وسلم اك كل من دير بو ضي ينتي بي دو كين والله والله اك نو من تدو اك لو من يور بو ضي ينتي بي دو كن الله تغير انت بي كل نيت تخي الجنه ادنا كلا نيت دي تخي الاخره الله ومن يتع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها انهار ومن يتولوا نعذبه عذابا اليما والعياذ بالله لول نك دنت ورا باي لول نك تي وير ان هذه الشهر ولد فيه القير الانام لول فوك ني باي تي خيل وير وي نك موتاخ تي تامبالي بي ما واخ لا ن سيسي اوكازيون غي بو خامني تي لا ني ديفارو با فاو با ني ياكو تي بو فاو لغي نك ديسنا تي نون داخ دانيو بيغ ديفارو ولا دانيو بيغ ياك ني بيغ ديفارو نان جيل تنك سين بوب تي ري يوننتي بي roy yonent bi ci jikkoom yu baax ya wallaahi ak am solo xam nga wax nga sànq benn baat innama bu'istu li utammima makaarimul axlaaq mais fëgg sa dënn googu yonent bi rekk ko sañ wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi fëgg dënn googu moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko sañ man la yàlla yónni ma ñëw seet yi manqué woon ci ay jikko rafet ma mottali ko pourtant amon na fi. bim mu jikko yu bax amon na fi. mais doyul. njub amon na fi mais doyul booba Lamine amagul. bi yonent bi ñewé la Lamine am. yàllaahi wallaahi wallahi wallaahi amiin. bi bi yonent bi ñëw. la hadi am. la haqq bil haqq am. yàllaahi wallaahi naasir al xaq bil xaq. ginnaaw yonent bi la ñëw ginnaaw bi mu amee la am. bi mu amagul yooyu amagul. moo yàlla fayal ñu suñu kilifa yi. xam nga. sooy jàng salaatul mm-hmm, mm-hmm. war nga cee jàng lu ne موين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق لو لن نقول كون امن امن امن ليدوغ ابي والله والله خاتمي لما سبق <laughs> ناصر الحق بالحق كن امن يدسون والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله موتخ يلا كان دمام والله والله والله امن لو خن دف ت موتخ ني واخ حق قدره باسكو لول دو سونو ñu delloo ko yàlla moom mi am kattan ca kattanam ga mu def loolu mu defal ñu ko xaqa qadrihi wa miqdaari azim kooku yàlla moo koy defal xeet wi moo tax yàlla na yàlla fayal ñu mag ñii amiin amiin moo tax seen tënk ku ci tënku yàlla mën na la defal sutura waaye nag ku tinkeeku ca tink booba mën na am sa dund kerec benn mag dama waxtaan ak moom léegi ci yoor yoor fi ñu nekkoon bi nga may woonoon moom laa toogal mu ne ma sëriñ bi mën naa mu ne ma mu mag ñi jeexee ak ñi mag ñi yar jeex lu fiy des <laughs> wallaahi jar na laaj de <laughs> mag ak ñi mag bu mag ñi jeexee takk. ak ñi mag ñi yar jeex. te sëriñ bi boo amee seetlu. xam ne mag ñaa ngay jeex. te ñi mag ñi yar tamit ñu ngay jeex. Mm-hmm. boo seetloo génération bii ñëw. Mm-hmm. génération bu toll nu leen neex. mais vide. Mm-hmm. ci xam-xam. vide ci jikko. vide ci discipline. vide ci lépp. loolu baaxul ci réew. kon nit ñi nañ delluwaat ca cosaan gi jël njaboot gi jox ko yonent bi. jox ko yonent mooy delloo leen ca alquran jox ko yonent mooy delloo leen ca daara ya jox ko yonent mooy yar leen yarul islaam repère boobu buñ ko perte moo indi catastrophe yi ngay gis rey na nit ci ñaar fukk xam nga loolu ñaaw na rey na nit ci kaasu café xam nga loolu ñaaw na rey na nit ci huit mille francs loolu ñaaw na démb ci ndar maa ngi seetaan ci journal bi koo xam ne day toog ba neex ko rek muy dawal dara balaa mu gaare daw gatano oto ba oto ba yéeg ci kawam mais seetal boobu musiba lan mooy xabt xabtal nit ñi ci loolu. wallaahi wallaahi wallaahi. lu xew gis ko loolu duñ ko seet. Mm-hmm. ku toog ba neex la rek. Mm-hmm. nga rey sa bopp. Mm-hmm. te yonent bi tere loolu. alxuraan tere ko. yàlla ne képp ku faat nit te tey ko sa kër mooy safara. loolu alxuraan bu leer la. di koy fowee. ñun di ko fowee. ci réew mu toll ni Sénégal nga xam ne li ci ëpp ay jullit lañ. nit ñi ñoo atté diine lu xew. wallahi wallahi imam lu xew lu xew. réew mu toll ni Sénégal. nga xam ne li fi ne ci diine. nit ñi ñoo wax diine dëgg. lu xew. lan moo xew. Uh-huh. ki nga gën a naw ci kilifa ci wàllu àdduna ba ci wàllu diine. Uh-huh. moo naan la man. Uh-huh. rey ñu rey la man nanguwuma ko fu mu ko teg. <laughs> xanaa moo ëpp yàlla yërmande ci nit ñi. <laughs> xaj na si domaine lom <laughs> luy lom kuy lom yàlla mooy lom di. wallaay wallaay kuy lom xam nga yu façon yooyu. buñ demee ba mu ba mu tas ci réew mi eh, sëriñ bi. Eh, jaam dafa warul. Ah? warul la mën a ëpp yërmande borom bi. mënul nekk. Mm-hmm. léegi nag yàlla na defee leen nii. Mm-hmm. nga ne ko yàlla li nga wax de. Mm-hmm. baax na waaye ko def. dafa am neneen nu ñu gënal. mu ne kon ma balee nag àdduna. wallaahi mu bañoog àdduna nag. wa man lam yaxkum bi maan salallah. fa ulaayika humul faasiquun. wallaahi wallaahi fa ulaayika nangam. wallaahi wallaahi ñett yëpp ba ca ñeent yëpp. wallaahi wallaahi yooyu yëpp bu alxuraan wax ko ñun ñu weddi ko. te ñun waa réew mi ñoo weddi loolu. Mm-hmm. te ñi ko weddi amu ci benn kenn kuy ab tubaab mm-hmm. ay jullit lañ ay Mouhamed mm-hmm. ay Moustapha ay Alaaji ay Ousmane ñoo ko weddi ñoo taxaw ne loolu warta am fu ñu jëm ba pare ñu ne dañoo bëgg réew mu dal réew mu avancé réew mu nakal émergent du am <laughs> du sotti bu ñu naxante nañ dellu ca yàlla parce que li ñuy wut yàllaa ko yor moo koy joxe suñ ko lànkalee mu bañoo àdduna àdduna def ñu fas dañuy jaabal ba ñu xëy faatu dem safara yàlla ci yàlla musul am na solo El Hadj Malick eh, nga am loonu waawaa nga eh, am konu jox mu jàllale benn message eh, fatubarakla su ko defee nu mën a wettali contact mbokk lu si mbokk bu si bëgg a siyaarante si gàmm gi wala am lu mu bëgg laaj imaam mm, wala am lu mu bëgg a saafonteeg mbokk yi mu danañ mën a jaar si 33 821 85 xam naa imaam fi tabarakallah eh, bëgg nan nga dikkal nu lenn tamit si wëllëre mm-hmm. kollëre mm-hmm. muy lu am solo mm-hmm. eh, doon luy commencé di tumuranke li ni wax kersa tamit fa doon lu am solo te di commencé di tumuranke kon alxaji malik bu fekkee mën nga noo jox aja eh, waaw bismillah bismillah allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Eh, Adja Aram Ndiaye bu Tëngéej la imaam imaam ñam njëkkay Ndiaye Ndiaye Ndiaye. imaam ñu ngi lay ziar baax Ndiaye. Ndiaye Ndiaye. macha allah Ndiaye Ndiaye. yàlla nangu tabarkel mbaa am nga rajo bi. waaw non non aw ma. Eh, <laughs> dëgg la dëgg la rajo bi macha allah. dëgg la dëgg la Ndiaye. ba léegi émission bi am na solo macha allah. jërëjëf Ndiaye Ndiaye. jërëjëf Ndiaye. ñaan yàlla suñu borom yàlla nañ eh, tamit laa àndal. ah Malick ah eh, Malick. si. Eh, <laughs> ñu ngi si burdu bi. wallaay ndeysaan yàlla yàlla nangu lépp. may ñaanal auditeurs ak auditrices yëpp. jërëjëf Ndiaye yàlla defal leen jàmm defal leen xéewal. amiin amiin defal leen teraanga. amiin amiin Ndiaye. naa yow aussi ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax. amiin ñoom ko yàlla boole. jërëjëf wéral cër yi yàlla yàlla wéral cër yi. amiin amiin Ndiaye. incha allah yàlla yokk xam-xam bi. amiin amiin amiin amiin amiin Ndiaye. jaaba. amiin amiin. bu ñu fay sëriñ bi dañ koy bàyyi yàlla. jërëjëf Ndiaye. jàllale pour jaam yàlla yu defaru. Mm-hmm. Mm-hmm. sëñ Ousmane ñaar ngeen seen message bi ngeen di jàllale pour euh, mm-hmm. euh, xale yi defaru da mm-hmm. leen yàlla defal dégg ak topp amiin amiin doon wax léegi gën lu toll ni tracteur xaw ma camion dugg ci suufam wallaay wallaay da ena la ay fanam wallaay wallaay wallaay yàlla ñu ci yàlla suñu borom gën a musal amiin amiin te xam ne àdduna bànneex ak naqar ñoo ànd képp ko am naqar rek nga wàcc lu mun Mm-hmm. nga xam ne du jeex mooy tege ay natt te bu ko soobee teg bi njaay mm-hmm. Eh, li leen di wax am na solo lool wax dëgg yàlla. jaay jërëjëf jaay defaraat société bi bu mu gën a defar. amiin amiin amiin. kontaan naa lool Imaam. kontaan naa jërëjëf jërëjëf jërëjëf tubaarkalla am naa su mbégte lool. macha allah jërëjëf dina ñaanal suñu maraa rek yàlla yokk wéram dëgëral taxawaayam. amiin amiin amiin. Eh, doon ñu fàtte si ñaan mais ñun aussi duñ leen fàtte si ñaan ñu ngi leen di ñaanal. macha allah jërëjëf yàlla boole nangu ñaan ñëpp barka. amiin amiin amiin waa association Wadduha yëpp. wax naa wax naa imam mu ñaanal leen bu baax association bi. daal fas yéene def benn rencontre. maanaam assemblée lañ bëgg def daal. yal na yàlla mottali te barkeel. yal na yàlla mottali te barkeel. dal daal fekk programme yëpp a wa wallaay wallaay wallaay. wallaay am na yéen imaam ñu ngi lay ñaan nga defal ñu si ñaan bu baax a baax incha allah waaw suñu association bi suñu bëggee yegg dara yàlla ñu ko si amin amin Ndiaye ah imaam maa am nga si carte yi waaw xam naa imaam maa ko yoral ba sam dina ma jox noo xam nga gisee imaam moom bëgg nañ nga ñëw si kër gi incha allah incha allah incha allah imaam moom jot si xawul a yomb waaw yombul mais nga am si carte yi rek barke wallaay wallaay wallaay incha allah santanu eh, wallaay wallaay. incha allah jërëjëf jërëjëf yan yàlla barkeel yàlla nangu ñaan yëpp. amiin nu tewee ko at yu bëri. yàlla yàlla boole yool. amiin amiin amiin amiin. yàlla suñu borom boole. jërëjëf bu Tëngéej. Ah, mooy présidente association. Mhm. Wadduha fa tabarakallah ñu ngi ñaan yàlla yokk leen barke incha allah amiin ñu jarañaan leen imaam. ñu ngi koy sant bu baax. waaleykum salaam wa sëriñ Mara. Eh, Alxaaji Modou. neen def Mouhamadou Lamine Muntaxa. ah Mouhamadou Lamine Muntaxa <laughs> neen maa ngi lay siyaare baax. maa ngi lay siyaare bu baax Cissé. jërëjëf yal na yàlla nangu tabarkel. Eh, di la ñaanal suñu borom guddal sa fan. amiin amiin baax. Eh, doole lay defal tawfiq ak taysir. amiin amiin amiin. borom defal la najaax ak la <laughs> sax ak la rey ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. ñooñu lañ koy ñaanalee yaa imaam. ñoo koy nuyu baax. waaye tamit sëñ Malick itam ñu koy ziar lu bare bare bare. Mhm. siyaar bu baax sunu technicien boobu sëriñ Malick Sidibé <laughs> wallaay mi ngi lay fay sama kàddu di lool moom it di sonn lool ci euh, émission Wadduha wallaay wallaay wallaay euh, wallaay yaa aram ñoo ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax wallaay wallaay sell bi mu ne wallaay dëgg la dëgg la baax ñaanal yàlla sunu borom guddal fanam amin amin Mohamed mbooleem njabootu Wadduha bi yëpp ñoo ngi leen di ar bu baax mbooleem association bi amin amin ba yaa imaam ñu ngi kontaan lool. Ah, ah, ah, daal boobu nga xam ne El Hadj Modou si sëriñ Mara itam dalal na la ko. Mm-hmm. jërëjëf ci mbégte lool rawatina ci weer wi. Mm-hmm. te waajal guddig yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne itam lu am la. Eh, ni ma ko waxee rek dëkk bi itam mu nekk loo xamante ni itam lii dafa nekk ab firnde boo xam ne ab jàngat la. Euh, njàngat li mooy lépp li nga xamante ni ci weer bi war na ñaan nañ ko. Mhm. Euh, réew mi itam di ko faral di ñaan itam am nañ ci yaakaar ci yaakaar bu wér ci suñu borom. Mhm, mhm, te euh, Sénégal dañu bëgg yeneen ci. wallaahi wallaahi. fi fi nga koy xamee ni ma koy waxee rek boo duggee ci woto tey nga dugg ci kaar tataay sax. boo duggee kenn ngoo xamante mu ngi yalwaan bu tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis. kanam yi xool yi ni ñuy seetee ni ñuy. wallaahi wallaahi ndeysaan xéwal di ko joxe. Sénégal ñu bëgg yonent bi والله والله والله دا نغي خول فيزيت دو بروكسيميتي ديغا خامي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب نكو جانغلي في مكه المكرم 3 ans ييغا خامي كون نيهون danaan ni xëccante xëccante gobar. Mhm. Euh, doo dégg euh, tuurante deret am waaye loolu yëpp amu ko. Mhm. Mhm. waaye yàlla suñu borom tabaaraka wa taala da koy jàngal moo tax damay wax ni lii di ay campagne du xaañante du sànnante gobar rawatina li nga xam ne ci réew mi jamono ji. wallaay dëgg la Mouhamed. waaye visite boobu yàlla suñu borom defal na ko jàmm muy muñ. di gis lu ko neex lu ko neexul ñetti ak yi nga xamante ba suñu borom tabaaraka wa taala defal ko ndam. Mm-hmm, mm-hmm. bu ko neexoon ni suñu borom bu ko neexoon bu duggee rek xol yëpp ànd ak moom. Mm-hmm, wallaahi la jàngal la leçon la. war nañu mën a dellu delluwaat xel bu baax a baax a baax. moo tax wax dëgg tey ñu ne ñaaw tiif xew na ci yeneen réew day jaaxal Sénégal sax hmm. yenn mbir yi nu ko euh, doomu aadama yi mën a defee hmm. hmm. yenn yi du tàmbalee di ruus di wàcc nii foofu daal ñu mën a dellu si waat dégg la ci njàngale mag ñi wallaahi ndeysaan Mohamed wala suñu valeur dellu si waat rey yarat yarat njaboot wallaahi am na solo dégg la surtout si may daanelee rek moo di euh, ni ñu koy waxee rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu waxoon nee na jullit du ma euh, ngëmam du mat faw lu mu bëggal boppam. wallaay lu am solo lu am solo. lu am solo tey gis naa tey sunu borom tabaraka wa taala defal na ko ndam. Mm-hmm, mm-hmm. xëy na jox na ko euh, mën na ko ne mën na ko jox na ko woto. Mm-hmm. jox na ko étage yéene ko lool. xam ne loolu sunu borom moo ko jox. yéene ko ku mu yokk dara ji gu mu ko jox suñu borom moo ko jagleel mm-hmm. nañ ko nangu mm-hmm. jërëjëf ndax boo loolee tam boo ko gisee mm-hmm. li may bëgg a daanele foofu rek mooy bu fekkee ni ki ñaan a ngi dox saa su ne yaruñu suñu suñu bopp na nangu ñu dogalu suñu borom suñu borom nag dañ koy gëm wóolu ko wallaay dëgg la ngëm nañ ko waaye kóolite gi moo des wallaay wallaay am na sangam wala gis nañ li nga xamante ni télévision yi xool nañ ko léegi ah diw gis nañ ko ni mu nekkee wax fa dëgg yàlla ay borom bien la. rek ay image la rek ay image yoo xam ne ñuy teg la. loolu day nekk ci ci askan wi. askan wi di ko bàyyi xel jàpp ni rek mooy dëgg. dëgg la la loolu nañ ko bàyyi waat xel bu baax a baax. wallaahi wallaahi wallaahi. laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li axiihi maa. wallaahi wallaahi ndeysaan lu wér. daal nañ ko delloowaat bu baax wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi rafet na nag ñi ci ñi ci ñi xaar bari na. rafet na rafet na macha allah محمد ما شاء الله ما شاء الله محمد بارك الله فيك بارك الله بارك الله محمد الله من منتخب ومم لا في فرال دي ويتي لكون تي يلا ساي الله مو خمنا كو ام اتلا ما شاء الله سنون ام جيين اللول سي ودوها تبارك الله وعليكم السلام ورحمة الله waaw na Oustaz Mouhamed Niang. waaw kay eh, eh, kooku eh. kan la. <laughs> waaw Maymuna la. waaw. yow moom Maymuna. yow moom ku la wax maa ngi fi ba may kar fi. <laughs> <laughs> Maymuna maa ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi si jàmm oustaz eh, kontaan nañ. wallaahi ndeysaan naka waa géej waay. dinañ li nga wax bu baax si sang bi. wallaahi wallaahi ñu ñaan yàlla yal nañu yàlla def. Hmm, ñu jikkoo ay jikkoo. amiin ak oustaz bi ak imam Mara Cissé ak. jërëjëf jërëjëf ak Hadji Malick. jërëjëf jërëjëf yàlla mu doon seen su baax a googu. amiin ndeysaan soxna su baax la ku baax a baax. macha allah yal na yàlla yokk ko baax yal kontaan nañu bu baax a baax. ndeysaan <laughs> kontaan Oustaz. ñu ngi kontaan bu baax Maimouna. jërëjëf yal na yàlla yàq ko. ñu ngi nuyu waa Daara ji yëpp. <laughs> incha allah maa ngi nuyu sama mbokki waa Mali. <laughs> ndeysaan ndeysaan ci moom mi moo sababoon sama dem ak Bamako. ndeysaan ndeysaan ci lépp ci moom la jaar. ndeysaan macha allah tabarakallah ñu taxawu ma fa lool incha allah. macha allah tabarakallah. yal na yàlla yàq ko barke. jërëjëf Maimouna jërëjëf. amiin waay jërëjëf. kontaan nañu bu baax jërëjëf tabarakallah. am na soxna soo xam ne taalibe mën na taalibe ma Mouhamed Niang rek la may wax. déedéet sama <laughs> moom la taalibe bi Mouhamed dama ah, la gëj a dëgg. wallaahi ndeysaan. Ah, dëgg la gëj nañu dégg. Eh, alhamdulilah waaw dëgg la dëgg la dëgg la yal na yàlla yokk lu barke. yal na yàlla yokk barke. jàmm gi rek nañ fañ doxal. incha allah incha allah. ñu ñaan yàlla képp ku dem nag na nga dem rek ñu rocceeku bàkkaar. wallaahi ndeysaan wallaahi wallaahi. bañ a dem ngir yeneen yi. wallaahi wallaahi wallaahi. jàmmoo rek ci barke yéen tamit. alaihi wasallam Allah ya yagal taxawaay jërëjëf macha allah comme couleur la saa yu ma wax lool rek lu muy wax man la taalibe Imam Ahmed ndeysaan yal na yàlla yàggal leen jërëjëf ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax ndeysaan ndeysaan may mun a ku baax wax jàngalekatu alquran macha allah jërëjëf may mun a jërëjëf tabaarakallah jërëjëf jërëjëf bismillah yoon bi 33 la 821 14 85 imam boo mm, waaw mu mel ni dafa am ku ne ci ligne bi. ñu mm-hmm. jël ko. Mm-hmm. ah mu ngoog. Mm-hmm. kon nee na kenn nekkul ci ligne bi. yaa ngi doon wax léegi ci kóllëre. maanaam li ñuy wax fecc kóllëre. Euh, mais Mara ndax nit ñaa ngi fas kóllëre. xam nga li ñuy fecc luñ façon la. wallaay wallaay. <laughs> ok ñu jël ma ko. <laughs> bisimilah bisimilah ak yoon bi. salaam wa man la Soxna Seynabou. Eh, Soxna Seynabou Ndiaye. Cissé. Eh, Ndiaye Ndiaye. Cissé. alhamdulilah Ndiaye. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. ci weer wu teru mu wallaay rafet na nu ngi leen ci ndokkeel lu bëri. maa nu ngi leen di ndokkeel lu bëri di la ñaanal. yàlla yokk barke xéwal. defal ko njaboot yi tamit. di am mbégte lool di leen masawu coono it. <laughs> coono bànneex coono eh, bànneex. jërëjëf Ndiaye wallaay wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf soxna Seynabou. incha allah jërëjëf jërëjëf maa ngi nuyu njaboot gi yëpp. na leen amiin amiin amiin amiin amiin amiin jërëjëf jërëjëf <laughs> eh, soxna buñ Ndiaye bokkoon na si ñi ñëwoon si sama ngan gi ah. amoon Jurbel ndeysaan ndeysaan eh, macha allah tabaraka la madame Cissé ndeysaan tabaraka la Adja Aram eh, Alxaaji Moodu soxna Jaaram Mbooj ñoom ñëpp tabaraka la Abdoulahi ndeysaan eh, Habib Mbaye premier auditeur <laughs> eh, fa tabarakalaa am mbégte lool si ñoom ak si groupe bi tamit fa tabarakalaa di ñaan yàlla yokkal leen xéwal mhm. yàlla yokkal leen barke mhm. defal ko seeni njaboot tamit 33 821 14 85 imaam waa nga continuer mhm. waaw yaa ngi doon wax léegi ci baat bi ñoo tuddee kóllëre ci wolof maa ngi lay laaj ndax nit ñaa ngi koy fas xam nga am na loo xam ne ku ko fas doo ko fecc wallaahi wallaahi wallaahi xam nga bokk na ci yàlla yi muy laaj ëllëg yowmal xiyaam mooy baat boobu ñuy wax kóllëre ak am solo parce que def na inna al ahda kaana masulan wallaahi wallaahi wallaahi Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu nee na yàlla du laaj dara lu dul kóllëre suñu digganteeg yàlla sax kóllëre la. wallaahi wallaahi dafa am pas-pas bu dox suñu digganteeg mm-hmm. moom. Mm-hmm. moo tax su buum ko dogee. Mm-hmm. moo tax gis nga alaaji bari na ku naan leen ku naan dafa fecc kóllëre. fasu ko woon sax. <laughs> wallaahi parce que kóllëre nit ki ko fas ak yàlla ba buum nga dëgër. buum googu dootul dog buum googu sàmm buum yëpp. wallaay wallaay. mais su buum gu njëkk gi doge. ki dog buum gi jog ki ko jokkook yàlla. ki ko dog. Uh-huh. buum gum waxati ne jokk na ko dalay nax uh-huh. Uh-huh. xam nga loolu foo koy delloo mooy la ma la waxoon sànq ci ragal yàlla ak nit ki li war sa diggante yàlla su jubul sincérité dugg ci war ma amu ca njub amu ca cell amu ca koo waxati ne dinaa jubaleeg yow da nga koy nax wallaahi wallaahi imaam war yàlla war ñëpp kon ñu jël mbokk moom salaamaaleykum wallaahi waaleykum waa kañ yaram. Ah, sama doom gëj dégg Cissé. maa ngi lay ziar a baax. sëñ Mansour dégg. dëgg la ndaka nu ngi sant bu baax mbokki Mboro wala. Eh, Pire yaa ngi Pire de. waaw eh, yàlla yokk barkeel. maa wallaay Mouhamed Niang imam. ak Malick Sock. Mm-hmm. di ñaan yàlla weer wi ñu toll luñ ci ñaan rek yàlla. bari jërëjëf Cissé Cissé comme que li ñu miin rek mooy dafa am borom. Mm-hmm. ah borom nag géej la goo xam ne moom ku ne da ngay ñëw tànk rek. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. wallaay boo gën di xuus rek. Mm-hmm. yeneen géej ji gën a feeñ. wallaay ndeysaan wallaay Cissé. boo bëggee gàttañ lu nag. Mm-hmm. li ci Maodo wax rek. min ko li wax seen xam yi. wallaay ndeysaan lu baax lu ne. jàppal ni mooy la ca gën a baax moom. parce que moom yonent bi. waaw bi muy bi muy feeñ nag. miñ nan ne maanaam yàlla bind na bu pare waaye lépp lëndëm la nekk. bi mu feeñee nag ki lañ mën a gis ñun ñi ba toog di wax. law lam yàlla fi fadail kaw ni talaatu laa tabqa albariyatu fi zalmaa yàlla. saa mi ñu ngi lay fekk ci li nga wax sànq. maanaam dañuy wax ni ba wax xewee. yàlla njëkk a àdd. waaye yàlla bu àndoon ak borom dégg yu rafet yi lay waxal. lay waxal wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. ku sa dégg ñàkk teggin. Mm-hmm. boo nettalee rek mu ñaaw. boo lay boo nettalee mu ñaaw. Mm-hmm. yéen yonente bi mi ngi fi ba léegi jógee fi. ba tey jógee fi. Mm-hmm. waaye jikko jikko yi defarawul. defarawul. wallaahi wallaahi dëgg lu ko waral moom dafa waxoon ni. maanaam nit ñu ne. feeg ñu ngi feccante kóllëre. yàlla di wane ay noon ci seen biir. allahu akbar. muy waral ay terroriste yi ñuy dégg. looloo ko waral mm-hmm. mu ne ab dëkk bis bu ñu demee ba lañuy ñuy yàlla taxul. Mm-hmm. mu ni jàppal ni li ñuy tuddee ñàkk dana fa siiw. Mm-hmm. kon moo tax maanaam dëkk bi am na xaalis lool. waaye atte wuñ ci atte yàlla moo tax. déedéet. Eh, macha mu ne nag dëkk bu fa ñaawtee baree rek. jàppal ne a yomb na ko. allahu akbar. Mm, moo tax ma joxe misaal ci kooku dawal oto ba mu neex mm. ko. mu wàcc te kenn xamul lu ko wàcc. kenn xamul mu daw gàttandu ko. mu ñu bés bu ñu demee ba ñuy mm-hmm. ni dund gi mi ngi gàtt. wallaahi wallaahi. Mm-hmm. moo tax ngay gis waxambaane. Mm-hmm. am dee ni mu yombee nii bu njëkk dee yomb loolu. wallaahi wallaahi muy dëkk nag bis bu ñu demee ba asaka kenn tëtu ko. kenn tëtu ko. kaw jàppal ne moom mi ngi fay ñàkk. Mhm. mooy waral bu tawit ñàkkul itam mhm. Mhm. comme nam demee woon ci jamono na yonent yàlla no tawit taw boo xam ne day yokk nit ñi mm, coono ñàkk waaye wallaay yokku leen ak am mu ngi taw waaye a baaxagul <laughs> bu ko defee dellu xel ci li sëriñ Cheikh waxoon ni ñu sangati réew mi. wallaay wallaay wallaay. la ñu koy sangat ak dara. allah hmm. macha allah. waaye xam naa ne ma nag liñ bi xat na. Ah, nañ lool de. mbokk yi nañ lool macha allah. macha allah ñu ngi yaar suñu yaay. yal na yàlla def la mag. Hmm. amiin sàmm la barke la macha allah. Hmm. baax na yàlla yàlla mottali yëpp. rafet na. macha allah rafet na rafet na ñu ñaan ñu ñaan yi nag. maanaam bu ñëpp ku mën di yëngu it ñi bokk ci Wadduha bu ñu yëngu. ndeysaan. na ci daw ndànk. incha allah. ci barke yonente bi yàlla na yàlla jàmmal ñëpp. amiin amiin amiin. dem ku ne yiw wala fa yóbbu yàlla joxal la. amiin amiin sëñ Mansour. barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. baax na jërëjëf. baarakallah macha allah Mansour. tabaarakallah moom de Mansour rek nga mën a nekk. wallaahi wallaahi ndeysaan yàlla na yàlla def ko. amiin incha allah yàlla sàmm ko macha allah moom de. jóge woon na ba Mboro indil ma taalif bu am solo bu am am solo li ma la waxoon léegi rek eh, eh, eh, ku bokk ci ñi mag ñi yar rek baax mm-hmm. daal di baax ndeysaan dëgg la dëgg la boo déggoy <laughs> ah, kàddoom ah, macha allah ah, moom di man nga njortu ne addiya àgg na fenn fa waaye addiya limagul wallaay macha allah gis nga dugg ba am solo macha allah xam nga macha allah bu génération ñëpp bu defaroo woon ni moom mm-hmm, mm-hmm. lu bëri looy dégg man na mën nay wàññeeku waaye yenn yar yari nii comme noonu nga ko waxee woon Eh, mooy njeexitalu mag ñi rek. Mm-hmm, mm-hmm. moo fi des njeexitalu mag ñi rek. wallaahi <laughs> wallaahi ñi boobu yëpp. Mm-hmm. ñàkk nañu. te dootuñ am. lolu fokk ñu ñëmé wax lolu ñi perdre repère mag ñi ñak nañ parce que xaqaayiq yëpp yonent bi mag ñi la ko dénk wallahi wallaahi ñooy doxal di rogalat ci seen njabot di rogalat ci seen njabot ila akhiri wallahi ko soko fi bayé nak defee na amna na leneen mbaa keneen nax nga sa bop te kenn du ñom kenn du ñom mané ko kenn du ñoom yonent bi lim mu amoon yëpp jox na leen ñu jara warmaa lan ñu jara jege lan tabarakallah ñuy jar di tatane seen kàddu di sàkku seen barke yi allah it allah koy wax lu bëree bëree bëri. si ne mm-hmm. xale yi nan koy nan di sàkku barke. Mm-hmm. day tàmbale nag si waajur. Mm-hmm. sabar ba ngay yëngatoo boo tollee si jàng métier boo demee ba yor responsabilité yi noonu. nit ku ñëw na gàttandu ba am solo. waxin ba ànd ak teggin. ndax sunu borom macha allah eh, nitam. li ñu wax nitu yàlla ak nit ak yàlla. Mm-hmm. leneen la walaay bokkul walaay bokkul. <laughs> mooy tax war ma nan koy yokk bu baax. tabarakalla ak teggin. Eh, ñu roy bu baax si sunu doom jooju. macha lekk léegi di Mansour Cissé. bu Mbora yal na yàlla yokk ko barke. Ah, incha eh, boo amee loo si sànni balay imaam ñëwaat. kon su ko defee rek mm-hmm. El Hadj li doon tënk léegi. Mm-hmm. mooy li mu yaa ngi ma doon wax ci wàllu kóllëre. maa ngi lay wax ne la kóllëre dafa bokk ci. alxuraan dafa wax na bokk ci. Mhm. yi ñuy laaj ëllëg. Mhm, boo gisee laaj boobu macha allah dafa xaw a tumuranke léegi. Mhm. ndax dinañ di wax ne. lépp boo xam ne maa ngi koy dégg si inspecteur Joxaane. ndeysaan mu ne lu nit jëmbat. keru sa ba mu des lu nit jëmbat keru sa ba mu des nit. ba mu des nit <laughs> day tegtal si ne macha allah loo yor rek. di koy toppatoo man nga sa jariñu. Mm-hmm. waaye nee na nit moom ngay defar ba mu mel na nit ñi. Mm-hmm. si kàttanu yàlla. mu mm-hmm. eh, doxee beneen doxin. bëri na nag bëri na bëri na si noo ko mën a déggee. Uh-huh. waaye li ci gën a am solo rek. mooy élage. képp wax naa ko ci tàmbali bi. képp koy jëf mbaa ngay jëflante. fexeel ba la ngay jëf. yéene ba sell. ak am solo. fexe ba la ngay jëflante. Mhm. yéene ba sell. Mhm. parce que mhm. su fekkee yéene ba sellul. perte la lay jural. xam nga lépp looy def ngir man. yéene ak am ngir man kese. man dafa am nit laa tudd nit. <laughs> am ay benki ñenke ay may manqué manqué. am ay yu may xam ak yu may ñàkk am ak njubadi am yu bari damay xëy wan la ko su fekkee yàlla taxul woon da nga koy perte wallaahi moo tax yonent bi teel ñoo gindi ne innama al amalu bi niyaat wallaahi lu am solo wa innama li kulli imrin ma nawa yàlla du fay act bi intention bi lay fay moo tax nit ñi dañuy beesal seeni yéene ci jëf xataa julli sax bu yéene bi duggul yàlla ne jëluma njàpp bu ñëw yéene bi duggul ñu ne yàlla na jëluma kon li muy teg li mooy baas bi base u jëf ji na doon yéene kam solo il ñu bàyyi ci suñu xel soo jaamoon yàlla téeméeri junniy at te yéene woo yàlla ne jëluma yonent bi ne na jëf jooy defati <laughs> yéene bi na sell wallaahi wallaahi su yéene ba sell yàlla daf koy sponsoriser te do ko yek motax muy xëy di rafet di mag xam nga tay ji legi amna ko la woyé mboro soxna ñom aram jaay ñom soxna zainab ku nekk ang lay ñaanal xam nga lu ko waral yéene mu sel ba nga déparé tama xam ci dara man ci at yu yag wallahi lu wér wér lu wér lu wér ci at yu yag lu wér lu wér imam yéene bu sel booba mo waral tay ba tay nit ñi di la gëna sop nit ñi di la gëna bëgg di la gëna am yéene yuñ la mën ta defal motax yene ci la yëf nek wallaahi kon yal na yàlla defal ñu yéene yu sell. defal ñu yéene yu bees. amiin yéene yu yiw. ba lépp lu ñu def yàlla rek tax. Mm-hmm. soo defee ngir yàlla. Mm-hmm. nit def ñàkk def ngir. leneen. yàlla fay la. yàlla fay la. moo tax foog ñu bàyyi xel ci jëf ji. kon wax naa ne. fas-fas yi nit ñiy wax. nan dañ koo fecc fasuñ ko woon. fasuñ ko woon. parce que ki fecc lim fas ak yàlla. bu ñëwee ne dafa fas ak siise day nax siise. fasu ko fasul dara. parce que pas-pasu sa diggante yàlla. mooy suy jëflante yaag siise. mbaa yaag sëñ soog. la koy lal yàlla lay doon. waaye du doon calcul du doon ñu ñuy tuddee deal. Mhm, te wallaay deal. <laughs> te loolu nit ñi ci ñaar yooyu. la ñuy loolu ndax ma ngi xamoon na ko deal. xamuñu ko <laughs> mel ni dafa am ku ne ci léegi. Eh, alhamdulilah imam. ma ne ko am na solo kon kon loolu dañ ci war a bàyyi xel. Mhm. mooy nit ki li muy jëf. Mhm. ak nit ki. na fexe ba kenn doon témoin mooy sunu borom. wallaahi ak loolooy tax doxalin ba rafet. mooy tax lu ngeen gëj a gëj a gisee bu ngeen gisee dara du xew. kenn du sëgg. parce que kenn fecciwul kóllëre. kon ñu jël mbokk moom salaamaaleykum bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa kañ kan la. Babacar Niakh. ah sëñ Babacar Niakh. Aymara na ngeen def. nu ngi sant bu baax sëñ Babacar. maa ngi jégalu bu wér a wér. ah maa ngi lay jégal bu baax sëñ Babacar ana ana Baye Mbaa ma ngi si jàmm. alhamdulilah fa tabarakallah eh, yàlla na yokk bu baax amiin ya rabbi na ngeen defal <laughs> na ngi sant bu ba deful dara alhamdulilah ñaax tabarakallah ñu ngi nuyu mbokk boobu nga nekkal euh, imam Mohamed Niang mhm. imam Mohamed Niang jërëjëf eh, eh. jërëjëf tabarakallah ngeen defal soona alhamdulilah sant bu kay allah fa tabarakallah alhamdulilah ñaax ah Baye Maram maa ngi jégal de maa ngi jégal bu baax a baax wallaay ñaax yàlla ko bu allah Eh, xam na na xel yi yëpp moom xel yaa ngi gisee xel yaa ngi jokkoo tamit. ma ni ko xam na. wallaay. ma ne ko billaay du dara nag ñàkk am émission bi rek la te man. bu wallaay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ñaax dëgg la. wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay. wallaay dëgg la dëgg la. maa ngi yëgalu bëgg auditeurs ak auditrices yëpp nag. wallaay wallaay ndeysaan wallaay. wallaay maa ngi leen di yëgalu bu baax a baax góor ak jigéen. wallaay wallaay wallaay. ma limee rek jum waaye sama xel a ngi ci yéen de. xam nañ ko bu baax ñaax. yàlla xam na ko billaay yal na leen yàlla fay Amin, امين ان شاء الله امين امين yàlla na yàlla amin amin amin amin sëñ Babacar amin mbay ñoom Ibrahima Ndour ñoom yaa aram mhm. Nicole Lepandum yaay waddu xaa mhm. yaay waddu xaa waaw leen baalu ak <laughs> waaw maa ngi leen di baalu ak bu baax a baax di leen nuyu jërëjëf sëñ Babacar leen gërëm di leen sant na jërëjëf jërëjëf yàlla leen yàlla amin amin amin amin may leen weer bu yaram amin amin ñaax daqal nu musiba ak balaa amin amin sëñ Babacar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amin amin amin bilay bàyyi maara nag man vraiment xam nga ñàkk a déggoo lëf rek man moom bu ngeen ma ko jàppee rek. rafet na rafet na. waaw waaw waaw waaw xam nga bu doon na séeréer la moom. wallaay. li ma leen yéene pour ñu ñaanal leen yàlla xam na ne kon dinaa ko mun a. wallaay wallaay. waaw moo tax ma ne nag su ma wootee rek maa ngi jégalu képp kuy déglu Wadduha. lépp rafet na sëñ Babacar. waaw waaw incha allah. lépp rafet na. di nuyu sama mbokk boobu nag Cheikh Tidiane Diouf waxam. Cheikh Tidiane Diouf wallaay wallaay. waaw waaw suñu séeréer boobu. ndeysaan. ok jërëjëf waay sëñ Babacar jërëjëf yal yàlla barkel la. incha yàlla barkel la. amiin yaa rabi eh, macha allah imaam ku jërë la. ku fidèle la macha eh, la nu gën a neex sa moom. mooy yëg ak toppatoo goo xam ne moo ngi koy def way juróom. Eh, fa tabarak la nee naa ko loolu lu am solo la. Eh, macha allah yàlla ko yàlla may barke loolu. tey dana ko amee si kàttanu borom. incha nii soxna Ulay Ñëng. ñu hmm. eh, koy nuyu bu baax bu si baxutaan imaam waa ñu ngi woon si amaana. mu ngoog ñu ngi woon ci. Hmm. baat boobu ñuy wax. baatu kóllëre boo gisee léegi liy fecciku oustaz dafa hmm. imaam dafa bëri moo tax hmm. nga ne ndax fasu na ndax fasu woon na xoolal léegi li ngay dégg si divorce hmm. si yéen yi nga xam rek da ngay dégg <laughs> surno yi nu ne nangami weer nangami junni sëy si yu noo xam fecciku na eh, fa tabaraka laa sëy ña nga li nga doon gis si ànd boo xam ne ñëpp danoo gëmoon ne ànd bu dëggu la ngay mujj dégg fu waay toog safaan lay wax sa keneen. li nga doon gis fa tabarak laa si li ngay gisit si barabu liggéeyukaay nga xam ne léegi li ngay wax eh, ñàkk eh, tricé yeeg. Mm-hmm. Eh, ñàkk dëggu gi ñàkk dëggu gi. def loo gëmul. Mm-hmm. ak puusal ma toog yeeg yooyu yëpp. fa xam nga xam nga dafa am ñun ñi tuddee ñun ñi tuddee imaam yi. Mm-hmm. léegi wala lañ lay indil benn laaj. dafa am kuma wo woo téléphone yow yaay imam ñang mané waw waaw mhm. mu ma sama ben mhm. <laughs> mhm. xarit dafa fase jabaram ñetti yoon déglu laaj bi de sama ben xarit dafa fase jabar jam ñetti yoon waye jëli na ko bërki démb ba mu ngi këram malay laaj lo ci xam luma ci xam man <laughs> loolu luma ci xamati wa deug yalla <laughs> loolu luma ma jëli na ko ba paré jëli na ko bërki démb ba mu ngi këram légui man légui luma xamati ci loolu wallahi wallahi wallahi xam nga loolu moy li ma la wax rek deug yalla nit ñi ñu eh, baal ma imaam ah? imaam nag loolu lu jërë lu jërë waxtaane la sëy dañ koy foye lu jërë bàyyi xel te baatu fase naa di wax ne fu nu ko tuddee rek ah? wàññil wàññil benn taxaw na te da nga gis mer rek fase naa la yàlla xam na gannaaw suba ngeen àndaat façon yooyu gannaaw dafa semaine ba nga waxaat ko léegoo léeg ñu indi la ci loo xam ne yow <laughs> yow yow Cissé da ngay am jaaxle <laughs> am na benn jigéen dafa ñëw na ma man dama laa seet si ma ne ah lu xew. Mhm. boo jógee mu ne ma yëmbal. Mhm. ne ma yaa yëmbal baal ma ne ko waa lu xew mbaa jàmm. Mhm. mu ne ma waa ndax damaa tàggoog sama jëkkër ba ñetti yoon ba buub naa samay bagage ñibbi ma ne kon de doy na waat. waaw kon nga muñ rek yàlla mën na laa indil boroom kër. ñu teg ci fukki fan ak juróom. ma woowaat ma ne kooku kan la. mu ne diw ma ne ko ah numéro bii de xaw ma ko mu ne ma sa numéro waa ji laa lay woowee ma ne ko kuy sama waa ji mu ne sama jëkkër ma ne ko ndokk. la <laughs> akbar <laughs> <laughs> Eh, maanaam loolu loolu loolu na. xam nga pour wax la ne nit ñi. sëriñ bi dund gu. gu ñaagu karaj gi ñuy dund. loolu du moo tax dëkk bi. <laughs> Eh, foog ñu seetaat suñu bopp. Ah, imaam loolu foog ñu bàyyi woor yàlla gi ñuy woor. <laughs> foog ñu bàyyi caay-caay gi ñu nekkee. loolu foog ñu di ko wax. foog ñu bàyyi war yàlla gi nekke waaw kenn du leen waru leen see jiitu imaam loolu. xam nga imaam lan nga sa teg. waaw si ne ànd ak moom daganul. waaw xam nga ànd ak moom daganatul. waaw déglul ma wax la bi déggoowaat bi <laughs> na. sama numéro waa ji la may wooye ma ne kuy sama waa ji mu ne ma sama sama jëkkër jama tàggool ma ne anama mu ne ma dellu naa këram. loola loo ca <laughs> dara. <laughs> façon yooyu nag. mu ngi ne xus ci dëkk bi te am na loo xam ne jaaduwul dara jaru ko maanaam adduna bu gàtt bi jarul loolu wallaahi wallaahi koom-koom jaru ko bànneex jaru sëriñ bi koo fi mën a doon ak loo fi mën a yor bés dana fi ñëw nga wàcc ko fi dem wallaahi wallaahi wallaahi bu dee jongama rek la yàlla mu nga jongama yu rafet wa xawrun xiinun la ka am saali loolu loolu mu ñoo gën ñii nee na jonga maa fa yoo xam ne maa ko denc yoo xam ne. loxo laalagu leen. ay jànq lañu jànq yu ndaw amaguñu fanweeri at. yàlla nee na seen bët yi ñu ngi mel ne peru jamaa ca ne. te yéen laa ko fa dencal. te ki gën a tuuti la dina ci am soixante-dix. te doo màggat doo joxe dépense. kon yu fii war na laa yàqal foofa. <laughs> wallaay nañu wallaay nañ def ndànk nañu teey. nañu teey te not suñ bakkan yi poñe ko mm-hmm. yëf yi sëñ bi du dara bakkan la wallaahi wallaahi bakkan kese mm-hmm. la nañu poñe suñu bakkan yi mm-hmm. moytu bànneex yii fi mu ñu jëmee doxut baaxul mhm. te loolu sëriñ bi mhm. moo fees dell ci réew mi mhm. ñi ëpp ci nit ñi ci caaxaan lañu ne ñi ëpp ci nit ñi ci ak njubadi lañ ne ba pare tuddee ko yàlla ba léegi diine sax dañ koy kooj da gis nit ku la woo ci diine boo ñëwee doo fa fekk dara lu yonent bi gërëm doo fa fekk dara lu dëppook alxuraan doo fa dégg dara lu dëppook sunna te ñu tuddee ko diine askanale ko diine mais yu mel nii kañ la fiy kañ la fiy jóg mu ne xus ci réew mi te kenn ñemewu koo wax wala ku ko wax ñu mere la sama classe nga xam ne kenn moomu leen ñun yaakaaruñ dërëmub kenn ñoo ko ñemee wax ñun kenn sax kenn xamu leen waaye koo fi yaakaar ne yaa ngi koy jëriñ boo ko waxee mu bala waaw ba kañ wallaay ñaata nit ñoo fi maye ay soxna yoo xam ne teguwul ci sunna teguwul ci diine ñu di ci sëy subhanallah façon yooyu ba kañ niti diine yi noppi ci niti nguur yi noppi ci ñu ne na réew mi am jàmm du mën a am jàmm gis nga nañ waxante dëgg. Mm-hmm. Mm-hmm. nañ laal góom bi fu mu nekk ñu okk ko. Mm-hmm. nañ wax nit ñi ñu dellu ci njub. nañ dellu ci alquran nañ uh-huh. dellu ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam uh-huh. nañu moytu tappale yi uh-huh. nañu moytu njubadi gi wax naa ne weer a ngi yoo xam ne occasion la suñu neexee fii la réew mi doxee tàkk ba faw baax lépp jag mais suñ sàggane itam fii la réew mi doxee biime ndokk yàlla nag ba am nañ fi ay mag ñu baax xam naa ne ñëpp duñ mën a sànku waaye suñ sañoon ñëpp baax wallaahi wallaahi benn benn yi rëcc suñ sañoon du am ndax benn benn yooyu ñooy mu jaan nekk ci biir pénc mi di yàq balaa déwén ñu yàq. te ci guddi yonent bi lañ ne. sallallahu alayhi guddi yonent bi lañ ne. sallallahu alayhi ñu ngi ci weeram. biir weer wi yëpp. leer la fees dell. leer googu war nañ koo jëriñoo. leer googu war raw. war nañ fexe kenn ku ci ne. ci sa jëmm ci sa jëf. ci sa wax ci sa alal nga dotti ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais duñ ko def nit ñangi ngi sànni seeni alal fu ne def fu ne bi wallaay ndeysaan wallaay mais lu duñ ko def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallaay wallaay wallaay di nga gis sax ku lay wax ne ci yonent bi la koy def fekk defu ko ndax defin wala ndax wala dafa wax ne màccinu dimb dana tax dimba wallahi wallahi lu wér dafa am defin manam suñu mbokk mi oustad aline Sall yalla na yàlla fay ko dama deg muy am nu muy waxe <laughs> léeg-léeg nga dégg mu ne ku bëgg a def lu baax da ngay dem ci techniciens yi xam ñu baax soo bëggee tabax doo wuti maçon. wallaahi lu meññ nga wut euh, bâtiment. booy def euh, laal nga wuti menuisier. mais boo bëggee tiyaaba da ngay dem ci technicien. tiyaaba mu wax la naka ngay def ba am tiyaaba. Mm-hmm, mm-hmm. mais bari na ku sànni alalam du am tiyaabo. Mm-hmm, du am tiyaabo ñàkk alalam. te alxuraan dafa wax ne. lépp lu ngeen joxe yàlla dina ko ful. wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu. wallaahi wallaahi waaw. léegi nag seetal. li nga nit ñi di dépenser li nit ñi di génne seen i alal te pertement rek la leen di jural kon li ma bëgg wax mooy bokki jullit yi fokk ñu delluwaat ci alxuraan. foog ñu delluwaat ci njàngale yonent bi parce que nag waxtu wu ne war nañ koo wax mais fii ñu toll loola la ñu war a wax nit ñi <laughs> nañ wax nit ñu delluwaat ci yonent bi ci suñu wéetee suñu wéttalikoo suñu jubee suñu suñu su leeree ak su lëndëmee suñu jegee ak bu soree dama dégg démb oustaz bu baax oustaz Samba Diop yàlla na ko yàlla fay ma koy seetaan ci télé bi muy wax nee na njàngum alxuraan mi xoolal ni mu bëree ci dëkk bi. Mhm, mhm. te dara baaxagul. <laughs> mais mu mu ne maa ngi leen di ñaan dara te loolu man essayé naa ko dama koy def. Mhm. moo tax bi mu ko waxee dama kontaan. ndax man damay def loolu. mu ne bu ngeen bëggatee jàng alxuraan wéet leen fu kenn nekkul. shawxa boobu ak dégg googu nga cay am. suñ nee nañ jàng kaamel nga toog fa doo ko fa yëg. soo ko jàngee ca mbooloo ma doo ko fa yëg mais wéetal. wéetal. ويتال جان القران ديف تدبر كرزا القران ديغلو كو اكس اكس واخوما ديغلو اكس ندوب مي ديغلو كو اكس روح فوك نيت ني دي ديف لول دي ديغلو القران اكس سين روح دي جيفانديكو القران اكس سين روح والله والله مي خولال تاي سيرين بو ني ديو فاتو نا رك ني نان واتي كامل ناخ اديون نا كامل لوم ييغالون بان تاي واتي <laughs> ku jàngul alxuraan <laughs> toppatoowul alxuraan mhm. bëggul jàngkatu alxuraan mhm. Mhm. waaw nga ne da koy wàccel kaamil ndax moom fu mu tegoon kaamil lu mu koy jëriñ aaya boo jàng rek aaya baa ngay wax ak moom moo tax foog ñu bàyyi xel ci loolu nañu delluwaat ci yonent bi delluwaat ci alxuraan parce que ñaar yooyu ñoo fi ne loo fi wax nit lu dul nii da nga koo bëgg a nax nit ñi nañ leen delloo ci alquran nit ñi nañ leen delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo demee ci barab yi ñuy jàngee kaamil léeg yow boo yoree benn jukki bala ngaa pare nit jàng fukki jukki sëriñ bi loolu tegul fenn dëgg la dëgg la loo lu tax nga koy def <laughs> mille cinq cent la cooy jox maa sept cent cinquante da koo jar wallaahi wallaahi wallaahi yàlla am na lu ëpp loolu am na lu ëpp loolu ay mbóotan ci alquran boo ko saxoo am lépp lu wér lu wér lu wér da nga am sutura àdduna am sutura àllaaxira doo soxlaal kenn dara wallaay wallaay yal na yàlla defal dégg ak topp amiin tabaarakallah macha allah macha allah baarakallah baarakallah imaam yóbbal bi am na solo macha allah yàlla na yàlla defal dégg ak topp comme ni nga ko waxee rek fa tabaarakallah yàlla gën a defar jikko yi gën a defar ruux yi comme ni nga ko waxee rek nekk nañ si weer boo xam ne occasion bu mag a mag a mag la ngir nu gën a defaru eh, ni nga ko waxee gën a wéet eh, roq mën a kan eh, seet la nga def si ay yiw nga dogu ngir fulandiku lan la nga nekk te muy lu yàlla gërëmul nga doggu si mm, noo tàggoo ak moom mm-hmm. fa tabarakallah e, am na solo imaam e, sëñ Malick boo mënee am loonu yëkkatil tuuti rek boo ko defee nu doog a ñëwaat wax ne mën ngeen na topp ci 33 821 14 85 yaa ma leen gënal yaa ma leen mënaloo muhammadu rasulullaahi su la yàlla mayee baat bu neex nga mën a way te wayoo yoneen dee ka ngay way deena sa way wa na gëjoon naa di talif ngir ñii di sàcc fayasin, te seeni bàyyi fer nu baasin fa yaasin kooka mooy muhammadu rasulullahi ku lay jaay taar na sa xel dem si yoneen ka ba yalla yonne ko soratu ya yen mbokku déglukat yi mara sise di leen amal émission wadduha 10 h si goudi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 Ya gënal ya barakallah alhamdulillah rabbil alamin eh, jerejef imam mohammed ñang jerejef malik sok fàttali mbokk yi ne seen émission wadduha ngeen di déglu municipal de dakar 95.5 tey di mercredi desember décembre 2016 lu nekkoon si waxtaan boo xam ne ngir jikko yi gën a defaru la fa tabaaraka laa dégg ngeen imaam sànq mu ñëwoon si kóllëre ñëwoon si luy defar roo fa tabaaraka laa muy yóbbal bu ama am solo comme ni mu ko waxee rek mu ngi ñaan yàlla may mu dégg ak topp e, fa tabaaraka laa xam naa bu fekkee am na ko ne si yoon bi mën na nu bokk ak ñoom émission bi. E, waaleykum salaam wa Eh, yaran mangun hmm? ziar waay. yal na yàlla nangu te barkeel. di di wi. jërëjëf jërëjëf. waaw man de Abou Talib bu ñu may woowee Abou Talib. Eh, jërëjëf sëñ Abou waaw ku soppi émission laa nag. Eh, jërëjëf jërëjëf yal yàlla barkeel la. ndeysaan sopp ko bëgg kër. ñoo ngi jàng ñoo ngi ñoo ngi jàng ci émission bi daal. wallaahi ndeysaan yal yàlla barkeel. ñoo ngi ko jàng ñoo ñoo ngi ko jàng euh, xam-xam tamit. wallaahi yal yàlla barkeel lépp. waaw ah, yàlla ma ko yàlla boole. Ah, bëccëg bi sax ma nga oh, ndeysaan dëgg la dëgg la. waaw ah, allah. incha yàlla yombal tabarkeel waaw man naa waa Duha wax dëgg yàlla. yal na yàlla may la barke Duha. ndax yal na yàlla may la barke Duha. waaw yàgg naa di wees yàgg na gën a yàgg. muy Sokk FM muy Siwal FM tamit yëpp seetaan naa. wallaahi dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan. jërëjëf yal na yàlla barkel la. jërëjëf jërëjëf barakala fiik yal na yàlla gën a yàggal ànd bi yàlla yokk barkeel fàttali ñëpp wadduha point org mais ko ku fa jaar rek da nga am lépp loo bëgg a xam si wadduha mhm. wadduha point org fa tabarakala wala su dee youtube bi boo defee Mara Cissé it da nga am yenn si ay vidéo fa tabarakala nu jël ki si yoon bi bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah. voilà mm, sëñ Mbengue. waaw Mbengue nu ngay siyaare sëñ Abdoulaye. alhamdulilah Mbengue Mbengue. jërëjëf Mbengue. ba def nga ba pare. alhamdulilah sëñ Abdoulaye. tey dama ko woo de macha allah <laughs> tey moom dama ne si barke weer bi daal. <laughs> sàkk noonu ko ay jamono ma xaw a doy waar waaye tey moom nee naa si barke weer bi daal yéen naan wettali konte. <laughs> wallaay wallaay wallaay. tey ziar. wallaay jërëjëf Mbengue. di di di sakku jant yi yàlla nangu tabarkeel. macha allah yàlla yàlla yokk ànd bi. wallaay mi ngi lay fay sama kàddu. wallaay wallaay wallaay wallaay. jërëjëf jërëjëf <laughs> di nuyu bu baax sunu wëllëre sëñ Alassane Ba. Eh, eh, di nuyu Soxna ya Soxna Aminata Soxna Aysata. di hmm. nuyu turandoo ba tamit Alxaaji Modou Ba fa tabarakalaa di nuyu ñi dëkkee foofu ñëpp fa di nuyu sunu kóllëre sëñ Kalidou Gaye hmm. eh, Kalidou ku fidèle la si Wadduha di jox di koy jox sunu nuyoo mu joxal na ko Seex Ahmed Tidiane Ñang fa tabarakalaa bu daaray faccal yëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله آه في الحاج مودو آه في في في جاي جاي yal na yàlla nangu tabarkeel gay amin amin gay jërëjëf jërëjëf gay dama ne naa dugg rek baax day rajo bi de moom tey moom naan ko dafa xaw a sant faaw fan ngay woote fan tëngéej si tëngéej ji loolu xaw na doy waar sëñ Malick <laughs> ah moo ne am na ku woote léegi mbooro te mu ngi koy déglu ah, est-ce que est-ce que ah, sëñ Malick mu ngi lay dégg jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw bu baax a baax a baax jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Modou. waaw sëñ Mountakha moom. wallaay sëñ Mountakha dugg na léegi. dëgg la dëgg la ñu ngi koy jaar bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. a baax di ñaanal yàlla rek yàlla guddal fan ko yokk. amiin amiin amiin Gaye. yokk xam-xam bi. amiin amiin bu baax a baax. amiin amiin Gaye. waa rajo bi yëpp macha allah bu yàlla. fa ñu ko jaay ñun ñëpp daal waa Wadduha yëpp yëg nañ suñu bopp daal. wallaay wallaay. waaye kon nag ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf fu ñu mën ci nekk si àdduna ak fu ñu mën a nekk rek suñu xol ak xel yëpp ñu si yow daal. wallaay jërëjëf. gars yi moom macha allah yàlla moo am fay gi daal. wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf. ana sëñ Habib. sëñ Habib waaw waaw sëñ Habib boobaa léegi sax amuñ dégg-dégg. ah dëgg la dëgg la. waaw waaw Habib <laughs> Mbaye ak. sëñ Abdoulaye ak Mouhamed. Abdoulaye Mbaye ak Mouhamed Diop. <laughs> wallaay wallaay ah, wallaay. Eh, soxna mbooti ñun ñëpp. walaay ndeysaan walaay xanaa naan ku lim jëm ku lim jëm daal macha allah rajo yi ànd na macha allah. walaay dëgg la dëgg la dëgg yàlla xol rafet na. jërëjëf jërëjëf ñu ngi ziar ñëpp di bëgg ñëpp ñëpp bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf amiin amiin amiin ànd bi ñu ànd ñu yàlla boole ñu yàlla ñu yàlla gën ñoo boole. amiin amiin amiin bu gën a rafet te yaatu yaatu barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ziar ñëpp di weeru gàmm ko tedd jërëjëf jërëjëf alhaji Modou amiin amiin kay ziar bu baax a baax jërëjëf xaw ma ku nekk foofu yow Sall. Eh, Imam Mouhamed Niang laa nekkal ak ah, ah. sëñ Malick Sock. ah, ah waxtaan ba am solo sax si defar jikko yi si jikko yi la doon waxtaan tey. si jikko yi yàqu-yàqu yi xam <laughs> xam nga dégg-dégg yi am fan yëpp. Mhm, uh-huh. wallaay wallaay. dëgg la dëgg la eh, eh. imaam imaam imaam Mohamed. jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax imaam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. tabaarkalla tabaarkalla ay kontaan si yow bu baax a baax. lay ndeysaan ku ku baax la ku am kolere. gis nañ ko taxawaay. wallaay wallaay dëgg la dëgg la. naa ku rafet xolam macha allah. lu wér lu wér sax lu wér lu wér lu wér. xam ne yàlla moom nii rek lay def ñu baax lay dajal. wallaay wallaay dëgg la dëgg la. ànd bi nekk loo xam te dëgg ak. ak eh, kii rek moo ko moo ko lal daal lu wér lu wér lu wér lu wér. solo bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñu mel ne yéen moom dañ cee kontaan wallaay wallaay yàlla xanaa yàlla di leen bàyyi ba ca kanam ak kanam ak kanam amiin amiin amiin yàlla ci jiite kontaan naa bu baax a baax wallaay wallaay gay déglu ma rajo bi waaye wax dëgg yàlla incha allah di nga ko déglu incha allah moom dinaa ko déglu waaw dina am rediffusion incha allah vendredi deux heures du matin ak dimanche minuit incha allah sëñ Modou lool bég nañ lool maa leen rawatina ñoo nga defal jotaay bi sëñ a baax jërëjëf jërëjëf gën na maa kontaan bu baax a baax jërëjëf jërëjëf waaw man moom moom it ku la macha ku am wàllum kollëre leen doon waxtaane alxaji Madou Gaye nu ngi koy ñaanal di ñaanal ñi ne si association bi ñëpp fa tabarakallah ni mu ko waxee si imaam rek lu wér la ndax bu ma jumul depuis 2016. <laughs> yàgg na la ñu xamante. boobaa léegi foog naa mën na fukki at. <laughs> macha allah lépp ngi rafet. waaw ah, danaa lu manqué rek si man la waaye yow matal nga lépp. su paasee jëmm ju ñu wax Ibrahima Khalil Ndiaye. yaay ñaareelu nit bu ma. toog bu ma njëkk invité si rajo. Eh, si expérience Anor. ndeysaan ndeysaan fa tabarakalaa loolu kóllëre la. sant eh, tabarakalaa ni ñaan yàlla yokk nu ko sàmmal. yàlla yokk lay xéewal ak wér. ndax ñu mel ni yéen ñuy jar di ñaanal ngeen. ndax eh, macha allah yéen defar doomu aadama. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Mara Cissé. waa kañ Ahmad Tidiane. waaw maa ngi ziare. jërëjëf Diop Diop. Cheikh Tidiane Diouf. Diouf Diouf Cheikh Ahmad Tidiane maa ngi ziare jaar naa foofu pour jaaree ko. ah ndeysaan ndeysaan. waaw dégg nga euh, xam nga daa am ceeb bu mu mosoon dem foofu te comme déggoon naa ko ci rajo bi nga invité waaw. ma demoon foofu. Mhm. dama foofu la teg man ma dem jaare ko. ah ndeysaan moom ba mu ne ma tuddi na ko doom. ndeysaan eh, eh. ndeysaan loolu hasard la woon ci dem rajo bi rek laa ko. ndeysaan ndeysaan wallaay wallaay. Mm, Asou Diouf waay <laughs> sama sama jigéen la Asou Diouf eh, maa ngi ko tuddee doom wallaay. dama dama ci rajo bi. ah ndeysaan. par hasard ma ñëw sama jigéen bu ma jàkkaarlool kay. dëgg la dëgg la maa ngi ko tuddee doom. ndeysaan ndeysaan ñëwoon fa nag far ndekete moom ñoo jàkkaarloo. ndeysaan ndeysaan. <laughs> nga dëgg Diouf. ndeysaan Diouf Diouf. sëñ Babacar Niakh mi ngi lay nuyu duggoon na léegi. waaw moom maa koy déglu tey. kontaan nañu bu baax. wallaay wallaay. Ah, kontaan nañu. macha allah. ah li ma daal. boo uh-huh. mm-hmm. déggee moom rek di nga ko comme ça kon weeru weeru yonente bi lañ ne. wallaahi wallaahi. xanaa dañuy daal di yéen salaat yi. incha allah <laughs> ay dëgg ak ak ak euh, ci faatee tamit. incha allah baax na incha allah baax na. baax na baax na baax <laughs> na. macha allah jërëjëf jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. ndeysaan ndeysaan wax na dëgg. <laughs> ndeysaan dama seet si woon benn jigéenam. Mhm. ndeysaan tombeek ñooñu di ma tudd mu ne ah kii fi la dëkk. ndeysaan ñu ne ko ñu ne ko moo jur xale bi ko ndaw na ko mën la tuddee kii. gis nga de macha allah. ndeysaan. wallaay wallaay. yal na la fay ko. amiin amiin amiin jëf jërëjëf yal na macha <laughs> allah eh, am na solo fa tabarakallah nu ngi koy siyaara moom it Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Mm, fa tabarakallah nu ngi koy siyaara si mawlud bi 33 821 14 85. seen émission Wadduha c'est radio municipale de Dakar 95.5. Le 5 ñu Imam wettali uh-huh. Niang. kon Imam nu ngi woon si eh, makaarimal axlaax. Uh-huh. fa tabaraka nous ngi woon si Amana, uh-huh. si bien bu ni bu ni ñëw. <coughs> Eh, xam naa am de, lu xaw lu lu ni xaw di fooyee. te muy lu doy waar. nu baal ma si kàddu gi mooy li ni wax fen. nu baal ma si kàddu gi lu bëree bëri nag tuub naa ko. waaw dëgg la wallaay waaye ngir uh, nee na foo gis musiba rek boo toppee tànk ba. Mhm. ñaare sa loolu la soso. wala soso. loolu mhm. fa tabarak la imaam. Mhm. bu amee lenn loo si mën a laaxee biire mbokk yi. nu gën a defaru. si weer bu tedd bi di weeru mawlud nabi sallallahu alayhi wa sallam ngir nu gën koy maytu. Eh, lan nga leen si laaxee biire. jërëjëf. Imam Mara Cissé ñu ngi mm-hmm. delluwaat rek mm-hmm. di kontaan ci ni nga doxalee waxtaan wi mm-hmm. li nga wax léegi rek muy baat boobu te wolof di ko wax wax lu dul dëgg wallaahi wallaahi <laughs> te muy lu gën a yomb ci jamono eh, eh, allahu akbar mais yonent bi sallallahu moom dafa wax ne جلد دينا دفلونه مام دفلوه والله الله اكبر وانت من جلد من دفلونه من نكو دف واي فن جلد دوكو دف والله والله لغي نغا سيت نك تي جامونا بي كيفاي <laughs> نغا تي جامونا بي تي <laughs> نيت ني ني ني ني نكوي واخي اك ديكو جيف يماتون صاح تي واخكو كيسه ما نغي كو خامني جيف جيمي جيف صاح فن لا الله اكبر دا يرام نيت موي جيف بالا نغا نيت موي جيف lamuy jëfëndiko du dëgg الله أكبر وده القرآن منتير ونحن ليرل ولا تخورنكم بالله الغرور حتى الدين جينا نك نيت من نتي نيو دي جيفن ديكو لو خامني دين لا كو تودي موي ليما وخون واي لا كو لال دو دين كون فين ديكنا وور ديكنا تنك جان نان سي القران بات يو بري موي ويل للمكذبين الله اكبر سي دا لو رك baat yu bari la baamtu ci alxuraan waylun lil mukazzibin toskare ñeel na fenkat yi moo tax loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax comme yonent bi ne nit dina def lu ne loolu parce que def na nit su bàyyee fen rek jub wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi maanaam xam nga eh, suñ jumtuwaay yi ñuy jumtu jëfandikoo léegi léeg-léeg da ngay am kersa allo man la diw maa ngi waax Eh. te ki wax maa ngi padduwaa mu nga géejawaay allo man la diw maa ngi ñëw embouteillage bi la te ki la koy wax mu nga tëdd ñoo da dem ba yàgg eh. te loolu dañ ko xeeb mais catastrophe la ko seeti benn waay bi ko jox rendez-vous mu fekk ko bureau woo ko mu ne ko dama génn di dama am séminaire <laughs> nee na motul une minute mu génn jàkkaarloog moom. mu ko. allahu akbar. Ah. te li muy jur. ëllëg yowmal xiyaam alquran dafa wax ne ëllëg yowmal xiyaam ni ñuy xàmmee fenkat di mooy bu ñuy ñëw seen kanam yi day ñuul kukk nee na seen kanam yi day ñuul kukk su ko defee nit dina ne waaw ñee ñoom lu seen lox seen kanam yi ñuul ñee ñooy fenkat yi ñoo doon fenkat yi ci àdduna loolu kese waroon naa tax ñu moytu tax alxuraan àdduna ci loolu yàlla nee na yowmal xiyaam tara alladina kazabu ala allahi wujuhum muswadada neen da ngay gis da ngay gis ñuy ñëw nekk groupe mais groupe yoo xam ne seen kanam yaa nga lëndëm ñuul kook ñu laaj waaw ñii luñ mel ni ñu ne ñii de dañ daan wax lu dul dëgg moo tax sëriñ bi war nañ bàyyi xel lu bare bare xam nga yàlla dafa am ay cër yu ñu defal moo tax nit ki li muy wax ci làmmiñam amul solo li muy fas ci xolam moo am solo moo tax yàlla bu ëllëgee day téye làmmiñ ne ko yow laajaguma la mm-hmm. <laughs> yow ma tashhadu arjuluhum lay wax daf naan tànk yow laay laaj mm-hmm. question yi ñooñu lay posé question yi mm-hmm. wa tukallimu aydin wa tashhadu arjulum bi ma kaanu yaksibuun bu boobaa cër yi la ñuy laaj ñoom nopp ñoom bët ñoom tànk ñoom ñoom ñoom bakkan ñooñu lañuy laaj ñoom bopp yéen lu ngeen doon def su fekkee da ngaa yaakaaroon sa làmmiñ woo layee yàlla ne làmmiñ tey du fi wax. wax loowu ma ko. te boobu kuñ wax loowul doo wax. wallaay wallaay moo tax nga gis tànk di am sañu sañu wax parce que dañ koy wax loo. loolu nag ku ko xalaat. fii ngay teel a defar sa bopp balaa boobu bés boobaa ñëw. ko defee loolu sëriñ bi. mooy la ma la waxoon ca tàmbali ba. mooy fokk ñu defar suñu bopp. dafa suñ bopp nag du dara lu ñu roy yonent bu la ci kenn nax. Mm-hmm. bi ngay mën a roy ci ay jikkoom ci ay jëfim mm-hmm. rek baax soo ko royul mm-hmm. doo doon kenn ak noo mën a roy gi ñu koy roy nag mooy ñu jàng alquran. wallaahi <laughs> xam lan mooy njàngale moom yonent bi. <laughs> sallallahu alayhi wa sallam <laughs> xam lim ñu wax te mu wér. ñu <laughs> jaar te def ci suñu kéemtalaay kàttan xam nga yonent bi kenn du mel ni moom. wallaahi wallaahi. maanaam comme ni mu doon jaamoo. Mm. nam meloon nag noonu. étape mm. boobu duñ ca yegg ñun. Mm-hmm. mais yàlla daf ñoo noppal dafa ne. Mm-hmm. wa abudullah ma istataatum. Mm-hmm. defal sa kéemtalaay kàttan. maanaam génn defal sa effort ba mu jeex. ba yàlla xam ne usé nga sa effort mu xam ne nag kii fii la man. lii fii la yem. waaye li ñu xamul kay mooy ki jimul dara. am na ñoo xam ne jéemuñoo roy yonent bi ci dara sallallahu alayhi wa sallam <laughs> te boo leen woowee ay jullit lañ lay wuyoo <laughs> ñoom daal ñu nga lem yem seen lislaam ci ajjuma <laughs> ba ajjuma bu leen fi fekkee ñu julli ji ñooy gën a rafet basin ñoom noonu lañ ko teg wut basin bu rafet sijaada bu rafet wut kurus gu rafet ñoom noonu la ñu def defe ne mooy diine sëriñ Seex ne na lay sa diine bi sabxa wala imaama nañ moytu yooyu. dëgg la lu wér yàlla yoonam newul ci kurus gu gudd. Mm-hmm. ak sikkim mm-hmm. ak kaala. Mm-hmm. doyewu ko loolu. sama benn xarit daf ma ne. sikkim sunna la. ma ne ko ah, xam naa bu dee sunna itam de war nañoo seet parce que yonent bi daf ne woon. na ngeen wuute. ak juif yi maanaam yahood yi. melokaan. waaye sëriñ bi tey. football kat boobu ñu daan wax lalaas ca américain moo gën a gudd sikkim ñëpp <laughs> ab américain la boo demee juif yi gën a saay-saay tey ñoo la gën a gudd sikkim kon yëf yàlla yoonam newut ci sikkim bi sikkim bu ragal yàlla lal xanaa kay tax ñuy wax mais kaala gu ragal yàlla lal mais kurus gu ragal yàlla lal waaye kurus goo xam ne caay-caay ko lal lu ko yàlla di doyee wallaay wallaay wallaay te kurus xaqiqa la woon du woon du woon dafa am lu ko taxoon a jóg wallaay wallaay wallaay wax naa ko fii def naa ci benn émission yonent bi ñun ñëpp sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ne keroog bi muy def isra wal mi'raj dafa amoon lu ko yàlla boole loon mu war ko ñu tuddee ko al buraaq mais al buraaq boobu ci la mag ñi inspiré wu wut kurus rawatina waa tarixa bi moo ñu am juróomi seede am ñeenti tànk akub geen ak bopp ñu naan juróomi seede ba wutal ko ay ci mbir ci mbir sax ca kanam loolu xaqiiqa la wallaay wallaay wallaay waaye ku jóg rek gàdd kurus te caay-caay lal ko nañ ba loolu la akbar xam nga baat bi wolof la siise nga baal ma temps baa ngi jeex mais kurus baatu wolof la Mm-hmm. mais kurus tuddul kurus sab xala tudd mm-hmm. mais laaj la bu ñuy laaj kurus dañuy laaj mm-hmm. kurus <laughs> kurus waaw kurus la baat la lañuy bu ñuy laaj dañ ne kurus kan moo rus ki koy jëfandikoo tas sell te di ko jëfandikoo niñ ko kii moom la ñuy laaj xaw ma kurus de waaye moom bokk ci. wallaahi wallaahi loolu lay tekki rek. waaye ko jëfandikoo du rus. du rus ki koy jëfandikoo du rus. <laughs> ki ko def tiiteef nag. Eh, eh. bu yeboo mu pare beneen bi ci des maa ngi prêter attention ci nit ñi bari na sax ci mag ñu koy def mm-hmm. mais nañ ci bàyyi kurus kenn du ko def ci baat sëriñ mm-hmm. wallaahi ak bari léegi ak bari <laughs> loolu mag ñi dañ koy tere ku xam xaqiqa bi ci kurus mm-hmm. tey masalan sëriñ bi oto yi ñuy tuddee 4 kat 4 ku ne xam ne dafa mën a daw waa tey boo ko jëlee lonk ko ci sa baat bi <laughs> wala boog nga jël buum lonk ci sa baat bi lonk ci 4x4 <laughs> nooy def dalay lay watat lu wér lu wér kudut sa daw 4 mhm. li muy daw. lu wér lu wér. ki xam li muy daw bi benn benn mag mas naa koy wax bu <laughs> nekk Saloum. Eh, ñu ko benn jaam dikkaloon ko problème boo xam ne bu yéeme la nekk ba Amérique ne war doon ko war a si te peine de mort lañ ko war a def. Mhm. ba nu ko dikkalee. mu ne leen fan la nekk nu nekk ma nga Amérique de mu ne foofa day oto mënu faa dem nu ne ko déedéet mu ne saxaar mënu faa dem ne ko déedéet mu génne kurus ke daal ne waaye lii dana fa dem dana fa dem <laughs> dana fa dem. kurus ke la génne ne wante lii dana fa dem. dem bu gaaw <laughs> bu gaaw. wallaahi wéet ak borom bi. ba mu paree mu ne leen man ngeen a dellu. dellu eh, jamono yooyu téléphone bareegul. téléphone ban ñibbisee nu ne baal nañ ko. waaye ah, dañ ne faaw day génn réew ma. <laughs> ndok na ñëw. surtout nga xam ne bii li nga wax rek. kurus kurus kurus. ku ko yàlla nangulee rek du rus. te te te Serigne Cissé lay wax dara ñi ko doon weddi démb tey adduna yey na leen xam nga lu tax seetal ñi kurus faloon mu ngoog ak ñi fetal faloon beneen bi ci des mooy su fekkee sa xel daf laa nax ba nga naan ki ne Amérique lu ko kurus du def waaye dama ne ki ne Tamba di yónnee crédit Dakar fu nga ban fil la crédit bi jaar ba. wallaay wallaay allahu akbar. ana isi yi. lu wér lu wér lu wér. ana yàqal ma yi. ana séddoo yi wallaay wallaay wallaay. loolu ku ko def du ay tubaab xam ne te baati na leen raw. baati dafa am fil gu jógee Tamba ba egg si sa portable bi lu weer lu weer te léegi rek ngelaw li rek nga jot sa crédit. lu weer baaxatul ana ana yeneen yi ma bañ a publicité ana fii <laughs> li ñuy dencee xaalis yi <laughs> ñoom nangam diw. kon nit ñi nañu jaamu ji yàlla te jéem a gëstu ja mm. xaqiqa yooyu loolu mooy lii jëriñ nit ñi mm. Mm. moo tax ñi ko fi bàyyi ñëpp perte nañ mm-hmm. allahu akbar gis nga ba ci waxkat yi ñiy wax ci diine mm-hmm. ku ci wëcc kurus dootoo wax luy defar ma wax la ko tey wallaahi wallaahi wallaahi maa ngay wax dama ne ñiy wax ci diine laa wax ku fi wëcc kurus dootoo wax liy defar da ngay mujj nekk un perturbateur di wax rek nit ñi jàppee la comédien wala ñu jàppee la kuy tànqal nit mais doo wax luy dugg ci xol jamais parce que l'air gi ci kuréel di belli ci làmmiñu nit. loolu amul fenn foofu rek. wallaahi wallaahi wallaahi mooy ñu jokk ci yonent bi. moom naa la waxoon rek mooy njeexitu mag ñi rek. kon yàlla yàlla defal sutura am na solo macha allah tabaarakallah am solo ma ne ko am na yàlla nañ gën a. incha allah fonk nu gën a fonk kurus kon. comme nan la koy waxee. waaw fonk leen ko de. <laughs> maytu euh, nanu koy foyee di. def ci baat def si baat ak. leneen <laughs> warmaal ko bu baax. warmaal ko bu baax waaw saa yoo ko yore rek nga xam ne mu wóor la ne dangay ngay wu direct. ñaar ñaar yi <laughs> ñett yi iblis gën a soxla ci nit. Mhm. dinaa la ko wax tey ñett yi la. Mhm. mooy kurusu nit ki. Mhm. sijaadaam. potu ndaam. bu ñëwee ci sa potu ndaa tufli ci dootoo wér bay laa yomu diine. bu peñee sa sijaada mhm. saw ca nga mhm. baal ma baat bi mhm. tuur ca ndox dootoo jaamu yàlla ca sijaada ba lu sobe na ba pare bu laalee sa kurus def ca sobe pare nga dootoo ca jaamu yàlla moo tax mag ñi wutaloon ko ngise buñ pare dugal ci ngisi ga takk buñ pare lem seen sijaada mag ñi naan dëppal potu ndaal duñ ko dëpp duñ ko dipp wa naa ne dëppal potu ndaal wallaahi wallaahi tekk yooyu dafa amoon amoon lu taxaw li tax nit ñi wératuñ loo ci gis wallaahi dëgg la dëgg la Mhm. parce que potindaa yi ñu doon naa lépp seytaane tufli na wallaahi wallaahi poisonné mhm. seen mhm. sago di def bêtise dëgg la dëgg la yéen yàlla dool suto bëri na macha allah ma ne ko lu am solo nga wax dénkaane bu ama ama am solo la kon baax na lool nuy eh, jàngal njaboot gi suñuy muslu si noon boobu di saytaane eh, fa tabarakallah di leen jàngale nuy tudd yàlla si lu nu mën di def rek dinaa koy wax si mission yi di leen jàngalit nuy laab nuy saxoog laab Eh, fa tabaarakallaa bëgg alxuraan di koy jàng eh, lu am am solo la yooyu yëpp day defar roox day defar xol te loolu su jàggee rek fa tabaarakallaa doomu aadama jàkk kon sëñ Malick eh, xam na looy looy yokk si la imaam wax damay laa biire doomu aadama yi ñuy déglu rek mm-hmm. képp koo xam ne si moom dogal na mm-hmm. nga xam doom joo xam ne si da bëgg si bonum jubal ko mm-hmm. ci kàttanu yàlla. ci doole alxuraan. soo mënee bind sootu faatul kitaab. maanaam nga bind ko ba ja xijina siraatal mustaqim. maanaam nga baamu mustaqima. lim bu ki nga bëgg mu jub. wallaay lu am turam. lim ba mu la jox da bëgg mu jub. Uhuh. nga bind ko lim booba. Uhuh. def ko saafara. jox ko ko mu di ko naan. loo am solo la. bu dee koo bëgg mu jub rek incha allah rabbi. wallaay wallaay. su ko dee jëfandikoo yàlla dana. Mm-hmm. jubal xolam. wallaay wallaay wallaay. ba tey bu fekkente ne loolu it mm-hmm. ku ko man wala nga jàngalu ko. Mm-hmm. nga bind lu yàllaahu yaa muxallibal xuluubi. xallib xuluubanaa anil xuyuubi. képp koo xam ne si da am ay doom ci dafay xayib. wala jukkum neexu la. Uh-huh. wala bëgg muy def lu baax. Uh-huh. soo ko bindalee incha allah rabbi bu ko dee naan bu yàlla. Uh-huh. suñu borom mën na koo jubal lool. kat yàlla wallaahi am na solo. macha allah loolu ëpp naa bañ a wax kat. ndax <laughs> ihdina siratal mustaqim. li ñu doon wax lépp si siratal mustaqim la tënku. Hmm. Euh, te macha allah njaboot gi li ma koy wax toujours rek ne ñunu war a defar la hmm. dinaa di wax toujours ne alal yëpp njaboot a si gën waaye njaboot tamit bu tegee siraatal mustaxim moo bénéfice gënu koy rëy dundandoog moom xéewal lay doon te jiitu bàyyi ko fii toujours da lay yónnee xaddiya mm-hmm. te niñ ko waxee fa tabarakallah la ni def si chiffre kanu bëgg mu jot si jot si mm-hmm. fa tabarakallah noonu lay demee si yiwu nit bu fi bàyyi ko lu nu ko yónnee si yiw ak i ñaan rawatina muy njabootam noonu la si jotee kon nan gën a passif lool si njaboot gi mhm. ba yàlla may ñëpp siraatal mustaqim mu mhm. baax yi ñëpp rek comme dañoo nekk si weeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaatu bu am am solo mhm. doon naa koy wax lu bëree bëree bëri fa tabaarakallaa salaatu bi lim bi mu ngi doon 2435. xam naa comme temps bi jeex na euh, dina dinaa ko danañ ko bind bàyyi ko si boutique ba. def ko ay copier ngir ñu ko soxla ñëpp. salaatu la boo xam ne soo ko def fa tabaarakallaa yàlla dana lay yokkalay xéewal. Euh, dana la yokkal barke dana la yokkal wërsëg. fa tabaarakallaa mooy allahuma salli ala saydina muhammad wa ala ali saydina muhammad al nabil karim salaatan taftahu lana biha abwaab al arsaaqi wal xayraati min qasaini faddilika al asim allahuma salli ala saydina muhammad wa ala ali saydina muhammad al nabil karim salaatan taftahu lana biha abwaab al arsaaqi wal xayraat min qasaini faddilika al asim salaatu boobu fa tabarak la salaatu bu barkel la boo xam ne bii julli si yonent bi sallallahu wa sallam dina day ubbi xéewal day gën a rag tax gën a ragal yàlla tey fa tabarakalaa day gën a raxas xol salaatu bi nag yoon la boo xam ne képp ku koy def fa tabarakalaa yàlla dana lay yombale li xéewal ay xéewal dina lay bett e, yàlla dana lay barkel tamit mm-hmm. lim ba mooy 2435 mooy tolloog salaatu bi e, comme si weeru gàmm la nu nekk nu jox ko ñëpp yóbbal ngir nu barkeelu si imaam dafa mel ni minit yi bareetul bareetul <laughs> nu bàyyi la bu fekkee am nga looy looy dénkaane rek <laughs> li ñuy dénkaane rek mhm. mooy di ko dénk suñu bopp mhm. mooy ñu góor góorlu lool ci weer wi rawatina ci fan yi ñu nekk mhm. ci li ñuy tuddee gàmm na ñëpp. fexe màggal yonent bi sallallahu alayhi ak foo ko mën a màggalee ji nag. waaye li am solo mooy na ko sa ruux màggal. solo. maanaam yaramu kese amul solo. mais ñii jóg di dem ak ñi nga xam ne demuñu dañoo toog fa ñu toog nañ fexe ba màggalee ko ci. jàngum alquran nañ fexe ba màggalee ko comme li nga joxe léegi muy salaatu ala nabi ci siixa boo man nag salaatu ala nabi amul ndend siixa bu la yàlla may nga man ko rek jël ko beneen bi ci des mooy salaatu ala nabi du doy wallaahi ndeysaan dëgg la nangam doy na amul wallaahi wallaahi beneen bi ci des mooy xoolal salaatu ala nabi tey boo jàppoon ba set boo toogoon jàppoo ne da ngaa bëgg julli tusbaar mbaa san du nangu <laughs> mais salaatu ala nabi aajowul loolu bu la neexee. wallaahi wallaahi. waxtu wu la neex. wallaahi wallaahi sañ ngaa tëdd ba guddi nga ne bëlet. ne allahuma salli ala sayyidina muhammad allahu akbar amul fenn fuñ la koy tere moo tax nga xam ne yonent bi kenn du moom ndax fa tab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yusalluna ala nabi kon mu ngo naka ñun moo tax moo tax waajib la naka ñun wallahi santaane la wallahi yaa ayyuha allazina amanu wallahi wallahi moo tax soo ko deful dafa mel ni da ngaa génn ci daairatul iman lu wér lu wér gis nga nit su nanguwul yonent bi l'islam mu yurul loolu foog ñu bàyyi ci xel gis nga sëriñ bi dafa am yoo xam ne mag ñi dañ ko dul ñemee wax mais mboolem loo gis ci xeetu jaamu yàlla yi. Mm-hmm. yonent bee ci gën. wallaahi lu wér lu wér sallallahu alayhi wa sallam salaatu ala nabi moo ci gën. Mm-hmm. xamoo sëñ bi li tax ngay julli xam nga lu tax. wallaahi mooy yonent bee ñëw. wallaahi wallaahi bu ñëw loon doo julli. wallaahi wallaahi xam nga lu tax ngay añ màkka. Mm-hmm. yonent bee ñëw. xam nga lu tax ngay génne azaka. yonent bee ñëw. parce que yooyu bu ñë bi mu ñëwagul. amut. ci ak ñëwoo moom ci la ko yàlla farataale ci jullit ñi. li tax ngay toog ba nga ne xaaral ma jàpp xaaral ma julli. xaaral ma génne azaka. yonent bi ñëw. li tax ngay jàng alxuraan yonent bi ñëw. wallaahi lu wér lu wér lu wér. bi mu ñëwagul bi mu ñëwee la ko yàlla na jox alxuraan. ne ko ëmb naa ci lépp maa farat naa fil kitaab min shay. lépp def naa ko ci biir. kon nag ku mel noonu. wallaahi su ayee. nga xam ne moomam kay yëpp waaye dama ne biñ weer yu ñu ko jagleel. su ñëwee. lu waay mën a def ci salaatu ala nabi na ko def. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. lu waay mën a def ci salaatu ala nabi na ko def wax nga ko léegi boo bëggee sa àdduna jag boo bëggee sa àllaaxira defal loolu beneen bi ci des nit ñi nañ tàntal yonent bi fu ne wallaahi nga biir géej gi suñ ko mënoon dañ fay tàntal yonent bi <laughs> wallaahi wallaahi dafa gàmmul yonent bi moo tax naka ñëkk def ñëpp def wallaahi nañ ko def gàmmu ajawul ci dem barab sàngam wala dem barab sàngam mm-hmm. ajawul ci baas wala ñàkk baas dama ne toogal sa biir kër mm-hmm, mm-hmm. di def salaatu ala nabi sa njaboot yàlla defal amiin kon ñu ngi invité ñëpp ci gàmmu yi wallaay wallaay ñëpp dem màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah imaam macha allah xam naa tàmbeenu xaw a kii waaye eh, bég nan lool bégte gi moom foo ko àpp rek passé na macha allah eh, li nga fi jaare la lépp it nu ngi ñaan yàlla na nga ko waxee sami na waa tax na di ñaan yàlla it jotaay bi yàlla bu mu nekk sunu mujj jotaay ak yow di lay ñaanalit fa tabarakallah yàlla eh, yokk la wér yàlla yokk guddal fan bi ngay yàgg lool fa tabarakallah di jiite njaboot gi am mbégte lool Mohamed Oustaz Mohamed imam si am ak jotaay ak yow comme ni ma ko waxee woon eh, sëñ Malick bu fekkee am nga looy tàggatoon. sëñ di ñaanal njabootu Wadduha gépp mhm. suñu borom defal leen tawféex mhm. amiin ak taysiir amiin amiin di ñaanal nga yàgg fi lool te wér amiin amiin ci barke Muhammad ak mbooleem ñiy déglu rajo bi ñëpp rek ak fu mën di nekk rek ñu mhm. ñaanal xéewal ak yàgg ak wér amiin amiin ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. waaleykum wa rahmatulah jërëjëf Serigne Malick yàlla def la mag yàlla sàmm la barkel la. sant bu baax gërëm tamit eh, sëñ Malick Sidibé bi nga xam ne moo nu nekkaloon si technique bi di santi mbokk yi fi jot jaar yëpp ak ñaamoon yéene eh, dugg te ak si woon eh, fa tabaraka laa di ñaan yàlla lépp loo xam ne jub na fi nu sante ko ko jala jalaaluhu loo si yi nu koy jéggalu di ñaan yàlla may nu nu toog ak yéen yeneen i jotaay. looloo nekkoon tey seen émission Wadduha wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil alamin xool si yonent yi day doo ko gis soo ko dee xool si wali doo koy gis si xutbu samaan yi doo ko gis kooka daal mooy ci ndum Mamadou Abdallah yàgg naa gën kooka mooy Muhammadu Rasulullah